la uh-huh. ñu farale fa sama baay bu mu ñu yóbbu seen kalaw seen kalaw uh-huh. mu ngi daal di jël turo rek ñu farale ko turo uh-huh. am na ñoo xam ni ni mu doon liggéeyee ci kattan ak pas-pas ñu tuddee ko Baye Ñaay ñaari tur yooyu sama baay am na ko ñii dañ naan ko seen kalaw waaye ñii naan ko Baye Ñaay Amadou Soxna Sall ji sax uh, mag ñi rek ñoo ko xam waaye ñi daje woon ak moom ci daara ji ñëpp moom seen kalaw ak Baye Ñaay rek lañ ko ci ci loolu it Euh, yàlla dogal na mu liggéeyee sëñ mu doy ba sëñ mu doy wàcc bi liggéey te jamono yooyu ñoo ñoo tolloon ay at mm. sama waajur bu jigéen wax na ma ne mm, sama baay daan ko wax ne ko mm, euh, soxna ko wax ne ko soxna de yow yoway sama wujj soxna yoway lu tax mu doon ko wax ah. ne ko aw gi mu doon aw sëñ Moudou Abib di ko bësal di ko toppatoo aw yaram mm. di ci aw soxna si ah. looloo taxoon soxna si ne ko yow sama loolu sama waajur jigéen moom ko leen nett nee na sama bàyyi ah. nett na ko da daan bësal sëñ Mudu Abib mm. ba sonn mm. du ñëwee bàyyi mu di ko bësal du ñëwee bàyyi ba mujj day day mujj sonn ba far nelaw ci kaw sëñ bi nee na bu nelawee ci sëñ bi sëñ bi ah. ba yëg ne sëñ bi yeewu na wala moom mu yëg wala mu yeewu day day tiit te bërit na ñëpp suuf ah, ànd ak tiitaange ci loolu nag ah. yàlla daal di ñëw kër Moussa ah. sama ma ñu bàyyi di ñëw hmm. ma daal di jàpp genn ganaaru tiil bu mag boo xam ne moom laa yoroon hmm. ma daal di koy jàpp daal di biir sëñ bi bi mu sama maam nettali sëñ bi hmm. li ma ko wax mooy leen kii de sama taalibi la fu ma nekk it sama alal la sëñ Moustapha wax sëñ Moustapha loolu fu mën lekk sama la jooju nag nekkuñu sëñ bi wax bàyyi ko daf ko daf ko jëfe daf ko jëfe ndax bi yàlla dogalee ma jàng ba doxantu gëstu bi ma ñëwee ba delluwaat ci moom dama ko xamal ne ko sëñ bi de def nañ suñuy jéegu ak suñuy yitte ci xam-xam ci xam-xam bis ni ki tey nag lépp loo ñu jox moo ñu gënal loo ñu joxut ndax dañ lay laaj ba xam dañuy topp téere yi wa ilaa dañuy delluwaat ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca sëñ Moustapha moo ma ne jàkk na ma yow dañ laa li may laaj ne ma looy liggéey hmm. ma leer mu ne ma maa lay sama bopp maa lay tut sama fi bopp alhamdulilah xam naa sa digganteeg sëñ Moustapha dañ ci dugg hmm. insha allahu rabbi hmm. ndax euh, la boo xam ne ñun am na luñ ci xam sëñ Moustapha duggante yow mi dugganteel xam nañ loolu mën nañ koo seere ñëpp di ko dégg kon te naa ni mbokk yi nga ngi déglu fépp ci àdduna bi ci bitim réew ak ci Sénégal fu mu mën di nekk rek ñi bàyyi xel Baol Média FM 97 point 1 tey ñu ngi fi dalal Serigne Dame Sall euh, fële ca Touba Mboubri ndax annonce bi Touba Mboubri la ñu waaye nag ñun quartier bu ñuy wax Firdaws lañ dëkk loolu moom lay leer mm-hmm. euh, ndax suuf euh, sa Touba Mboubri la mm-hmm. waaye nag quartier bu ñuy wax ci lan dëkk pour léegi itam mm-hmm. bu ko ñu xam ne képp ko xam bëgg ngaa àdd ci émission bi ci kanam tuuti incha allah dina ubbi ligne bi ci 88 628 65 88 628 65 ci kanam tuuti incha allah bu ko defee sëñ daam ñu daal di nag euh, kan mooy sëñ Moustapha Maymuna bala ñu daal laaj sa diggante sëñ Moustapha kan mooy sëñ Moustapha ah. laaj nga lu matal laaj ah. kan mooy buñ ne Cheikh Moustapha May soxna Maymutul Kubra mooy waajuram mu jigéen Cheikh Mouhamadul Habib moom maam Cerno Birahim mooy waajur góor soxna May Kabir sëñ mooy waajuram bu góor sëñ Modou mooy waajur bu góor loolu doy na signature waaye na yëngu foofa dafa teel jóg te ba mu nekkee tu tànk xam jaamu yàlla yitteel ko nga xam ne doy doon cër bi nga xamante rek moom la donne ci moom la donne moom doy ko dafa jàng li war a jàng lépp xeeti xam-xam yëpp mu jàng ko ba mel waññeet bi ko sanc dëkk boo xam ne moom moo ko sanc bopp muy arafa boobu nag dafa mel ni sëñ bi dundam gi bëgg-bëggam yëpp dafa mel ni ci arafa googu ci la ko joyal yaakaar naa boo fa dem tey bu ñu ne dëkk bi sëñ Moustapha moo ko sant sanc ak dëkk bi ni mu toll ci diir bi fi sëñ bi nekk buñ la ko waxee loolu dana la jaaxal ndax dëkk boo xëyee dañ ko sanc te boo xoolee ki ko sanc ak dundam yëpp motul téeméeraat waaye dëkk bi tey boo fa duggoon tey dëkk bi rëy na rëy goo xam ne yaatu yaatu goo xam ne buñ la nee kii ko sañcoon dund dund ci biir dëkk bi lu ma téeméeri loolu dana la jaxal dana la jaxal alhamdulilah kooku mooy suñu Moustapha kooku mooy suñu Moustapha ginnaaw bi it ah. yàlla dafa dogal njabootam gi am jëpp da leen a sóob teel a sóob ci ñu ñu ñu jàng ah. mokkal alxuraan waaye da leen sóot ñu teel a jàng xam ba dañ ak waaye de teel a sobit ñu nekk jaamukati yàlla yoo xam ne yu nangoo jaamu yàlla te nangoo dunde seen ñaq mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp it a ko bàyyiwoon xel ndax bàyyi xel gi ci boppam moo ko def ci moom bi nga xam ne ku tedd ki ñëw na jamono borom dogal dafa dogal mu xaw a mel ni ku xaw a ku xaw a lompañ ci saayir moom sëñ Moussa Mbaye moom mm. mm. ci ci ci doom ni nga xam ne noonu la mel ci waajuram mm. mu bugg suñ ko waxee rek ah. loolu doy na sëkk ab signataire tey di loolu yàlla dogal na mboolem njabootu suñ tubaab yëpp cër boobu ndax sëñ euh, sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne mooy nijaayam mook soxna may kabir ñu bokk wenn waajur gu bokk wenn waajuru jigéen yaakaar naa ki li nga xam ne moom laa takk su fekkee ne mën na ko ëpp waaye xam naa lu mat fukki at ak ñett yoo xam ne at bu jot sëñ Abdou Khadir jógee na Touba ñëw gane ko te xam naa ne rek laa xam loolu jàpp waaye mën na ko allah akbar yaakaar naa Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdou Cheikh Abdou Cheikh Abdou Ahad ah. jógee na gi fekk ko Arafa ah. Cheikh Mouhamadul Moutala fekk na ko Arafa ah. que ñooñu njabootu Sëñ Tuubaa la di ay kilifaam. Mm. waaye kenn ku ci ne. Mm. dagg ngay sa yitte fekk fa mu nekk. allahu akbar te ku fa mosaan demit boo koy jógee. Ah. soo ñaan it bala nga jógee da ko ta da nga tàllal loxo suñu Mustafaa ne ko ñaanal ma ndax maanaam suñu borom dafa rabaski woon ah, euh, làmmiñam ah. ak kun fa yëkkoon alhamdulilah euh, ci osaas ma dolli ci tuuti rek suñu Mustafaa docteur la boo xam ne moom moo moo moo moo gaaw ci faje mm. dem naa arafa daje fa ak soxna soo xam ne dafa dem hôpital ñu xamal ko ne ko yow dañ lay opéré. Mm. te opération bi altine bii di ñëw lañ la war a opéré. Mm. soxna si jógee Dakar ñëw. ñu daje arafa mu ne ma man de sëñ bi dañu dañu opéré sëñ Moustapha nañ ko comme ñaanal duñu opéré ma bëggoon nga boole maa ah, ne ko sëñ ah, ah. ba nga ko ne sëñ bi de man dañ maa. op dañ maa bëgg opéré damaa ragal ko ma la <laughs> soxna si ne ma ah moom altine lañ ma wax di ah. ma ne ko soxna si ah. ndegam sëñ bi ne duñ la opéré kenn du la opéré loolu la wax <laughs> soxna si dellu bi jot mm. ñu yóbbu ko bolog mm. sumi ko jël appareil bi teg mm. gisuñu benn jàngoro bi normal ñu ñu wàcce ko ah. xool xool tegaat ko appareil bi gisuñu benn jàngoor ñu joxaat ko beneen rendu bi rendez-vous bi jotee mu delluwaat waa tegaat ko appareil gisuñu affaire ñu ne ko ah, la ah. xanaa da ngay dem ñu del defal ay traitement rek ah. ndax dere ndax jàngoro jom gisatuñu ko allah akbar te loolu li ci sëñ am mën naa ne fees na kab yow alhamdulilah nga xam ne soo bëggee xam sëñ Moustapha may dëgg dëgg dëgg mooy rahmatan lil alamina ndeysaan yërmande boo xam ne suñu borom da ko wàcce muy yërmande yi mboolem mbindaam yëpp yëmu ci kenn ndeysaan maanaam boo doon leneen nga xam ne doo jullit sax moom boo ñëwee jëmmi doomu aadama ji rek yi nga xam ne yàlla moo la sàkk ba noppi nga gënal ko ci lépp lu mbind moom boo ñëwee loolu lay xool bala muy xool jullit nga ak doo jullit moom noonu di xool alhamdulilah mooy sëñ Moustapha macha allah di ko sëñ Dame Sall leeral nga kan mooy sëriñ Moustapha Maymuna Mbacke euh, ndeysaan leeral gi yaakaar képp kuy dégg te itam sëñ Moussa xam naa dara sëñ Dame Sall leeral nde ñoom du ko ñuy xam ci leeral rek doy na sëkk ci ñun ma cee xool fu ñu teg suñuy tànk ba roy leen ci seeni jikko donte itam euh, dana wax ni melentaan lu mu gaaw gaaw du ma a def melentaan waaye nag ñu jéem a jaar rek fi ñu ndax itam ñoom yu jéem ñoo gàttandu ñu gis sëñ Moussa May moomu xam naa ni bu doon fii ci moom ba déwén itam du jeex waaye nag yow loo ñu wax ci moom ñu gëm ko ndax ba nga nekkee tu tànk ba fii nga toll mosoo teqali koo ak moom zahiran ki baatinan te loolu moom képp ku a xam xam ni sëñ Moustapha May da ngaa am ki moom ab cër te sëñ Moustapha May mu ne ijaabaam moom yaakaar naa ni ñëpp nangul nañ ko ñëpp nangul nañ ko ijaabaam li nga wax rek képp ku ko mos a ñaan loo itam ku mos a ñaanal ku ko mos a ñaanal itam boo di ko dikki loolu kon day wane ni rek borom ijaaba la woon kon sëñ daaw xam naa rek dañuy daal di pour yëkkati ak waxtu wi. dañuy ubbi ligne bi sax ci 88 628 19 05 88 628 19 05 képp koo xam ne bëgg ngaa bokk émission bi wala nga bëgg a jot Serigne Dame Sall wala nga bëgg parce que ngir Serigne euh, Moustapha Maymouna incha allah ligne baa ngi noonu 88. ñu doog a continuer rek salaamaaleykum wa rahmatulah. ku baax kooku. man de Ndiaye Touba Bourg. sëñ Maguette ñu ngi lay siyaar baax baax. jaar bu baax ñu ngi teewlu di ziar di la ziar di ziar suñu daam Sall te sëñ daam Sall mu ngi lay dégg sëñ daam fay ko waaw sëñ Maguette ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax alhamdulilah ñoo ngi ziar bu baax a baax di delloo ziar bu baax a baax tuwaat sëñ daam di leen doo nga laa xam si moo ko ñor moom maanaam suñu bi ñor na ko lool waaw maa ngi waxtaan moom ci yow ndax gis naa mu mu defar daara jël nit teg fa di ko fay loolu man mu di ko moom doo laa ko gisee alhamdulilah ñoo ngi leen di ñaanal nag maanaam di leen ñaanal bu baax xam-xam rafet lool. macha allah. ñoo ngi koy ñaanal maanaam mu am ngërëmal. seen xarit boobu walaay li sax bu koy ñaan bu baax a baax a baax. bàkk borom ko wax. amiin amiin amiin amiin amiin amiin. yaa bu baax di la rafetlu wax dëgg yàlla te émission tey bii moom. Uh-huh. maanaam tey yëpp yëpp fii na waaye bu tey moom moo ca rawat lool. alhamdulilah. ñoo ngi leen di jaar bu baax di ñaanal. Uh-huh. comme ni ma koy woo noonu démb rek. Hmm. sëñ Cheikh naam. sëñ Abdou Bakar. Hmm. Hmm. sëñ Cheikh naa. képp ku déglu rajo bi rek. na ko ñaanal mu yàgg loolu tëjee. amiin amiin ak sëñ Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop. sëñ Moustapha Diop waaw mooy faral dugg ci yi ndeysaan sama émission. waaw ngi koy jaar baax moo koy li ma ko waxoon rek. wallaay rek moo ko koy wax. wallaay ndeysaan waaw sant yi. waaw ñu ngi koy jaar bu baax a baax. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. yàlla na yàlla seen Xadim. xanaa suñu daal moom ndax ma moom fasante ak moom. kóol incha allah suba jàmm sëñ Mbàkke moom sëñ Moustapha May da koy gane si. na nga ñëw bu sooba kay ma dinaa dem ba nuyoo ak moom. Mm-hmm. te bu ñu jàllee yi itam incha allah na nga ñëw kër ga. Mm-hmm. ma yóbbu la ci moom incha allahu rabi ndax man képp kuy sama wóllëre bëgg naa nga xamante ak moom ndax maa ngi moom déedul dim ñaar kenn lan. loolu kay moom. waaw lu seer na ko loolu kay. waaw ah. waaw ah, waaw ba xam ne yéen ñaar kenn jërëjëf moo tax maanaam su ma amee kii nii ah. xam waayam. wallaay ndeysaan baax na ca kaw ca kaw ca kanam rek maa ngi bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu baax ma ko def lu buy. macha allah Serigne Maguette Ndiaye. Touba Mbobari allah. jërëjëf Serigne Maguette Ndiaye Touba Mbobari ñoo ngi ko siyaari siyaar waa Touba Mbobari gépp xam naa rek euh, képp ku bëgg ànd ci 88 627 5 waaye ko ne waxtaan wi mhm. ñi participé itam di dugg incha allah rabbi ñu di leen jëlaale mhm. léegi nag dañoo bëgg a xam nag diggante sëriñ Moustapha Maymuna ak sëñ Dame Sall seen diggante xam naa xam lépp sax du yomb mhm. waaye nag nga am looñ ci xamal ba nga xam diggante sëñ Moustapha ak sëñ Dame Sall waaw waaw oustaz laaj nga lu am solo ah. xanaa diggante sëñ daam ak sëñ Moustapha daa mel ni moo moo waral bis bii. Ah. bis bii nga xam ne moom la ñuy dégmal suba. Ah. mboolem njabootu Cheikh Moustapha gépp euh, di ca teew. Ah. Euh, sëñ Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa bi. Euh, leen jiite. Mm. ak mbokki musobeem yëpp. ak mbokki mbàkkeem mm. daa mel ni dëgg-dëggi loolu moo waral bis bi. Mm. diggante sëñ ak sëñ daam. diggante la boo xam ne du lépp la ñu mën a leeral. ci ab rajo ndax da ci am loo xam ne day baati ne ba mu ëpp hmm. daal mooy koo xam ne moo seet as ndongaam su xeebu mu bëgg koo ko ca kaw ba ñëpp seet salaamaaleykum maa ngi daan bi salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum waaw ah, ku baax kooku ah, la soxna Dieng waaw ah, soxna ma ngi lay dégg bàyyi daam na siyaar soxna soxna suñu ñoo ngi baax a baax a baax a ñu nuyu ñu ma. Euh, nuyu ñu maam Thierno bu baax a baax a baax euh, ak njaboot yëpp euh, kon Baye Dame mën ngaa kon ne ñu ngi koy jaajëfal baax soxna Astou Dieng fidèle auditrice la moom waaw mooy mooy ki nga xam ne mm. moo xool ndongaam loo xam ne ndongaam lu xeebul rek mm. mu soob ko rek mu yëkkati ko mm. teg ko ci kaw bëgg koo séenal ba ñëpp seen ko waxoon naa ne bi ma gëstoo ba ñëw ci ginnaaw bu ma ko joxee sama bopp ba dem fortal sama bopp damaa ñëwaat mu ne ma maa lay jox sama yëfi bopp teg ma ci yoon tàqalil ma dëgg ak fen war ma fi ma war teg sama tànk ba bokk ci gaa yu baax yi alhamdulilah am loo xam ne dafa ma koo jombloo ndax jomb ak rus dafa bokk ndax nit ki du rus mën naa ja mën naa nekk ci ci biir ay doomu adama ah. rus koo def hmm. waaye nag bu wéetee rek mën koo def ah, ah. waaye nag li nga jomb nag. Ah, am na ku nekk ci liñ bàyyi daam nañ ko jël kay ndax ñoom itam dañuy bëgg a kii salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum ah ñu ngi dégg lu baax diggante bi xam naa ne kii xam naa ne rek 88 lay doon 628 17 88 628 17 5 seen émission tey jii ñu bëgg ñu ànd ci ak Serigne Dame Sall. ci màggalam gën a muy def waaye digganteem ak soxna may Serigne Maymouna Mbacké moom sëñ Serigne Moustapha Maymouna Mbacké moom sëñ mu a bala waaw léegi hmm. looy rus ak loo jomb ah. salaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaam sëriñ bi ñu ngi ziar bu baax yàlla yàlla nangu waaw sëñ daam laa soxla woon ah, bisimilah ma <laughs> waaw sëñ daam ñooy ziar bu kii di Mokhtar Fall. Eh. taxaw ba sab dongo. ak sa <laughs> nee sama sëriñ sama sëriñ. maa ngi teewlu teewlu émission bi am na solo lool. est-ce que est waaw ah, man ak ñoom sëñ Adama ñëpp ñoo ngi koy teewlu di ko rafetlu bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah waaw di ñaan yàlla ci barke sëñ Tuubaa xasida yi moo dem loo ci nam ak loo ci yéen rek sëñ defal la ko alhamdulilah alhamdulilah waaw boo xam ne wax dëgg yàlla moom mm-hmm. bis bu mat a teewla ndax jàng alxuraan ak xasida ak fàttali ko mag ñi mm-hmm. moo a jóg wér na wér na wér da ngay suñu sëriñ bi suñu sax bëri duñ ko def daanaka ñoo ngi koy doog def woote ci rajo waaye mm-hmm. ngi ñaan sëñ Tuubaa gàttul la ci ci barke ab xasida yi waaw sëñ Sidi yow moom nag ma nuyul sëñ aadama bu baax a baax a baax a baax ñoom ñëpp ndax yow itam da ngay kenn ci ndax gis nañ sa pas-pas ci yaatal gi ngay yaatal xam-xam ak tasaare gi ngay euh, tasaare diine mhm. euh, xam nañ ko ci bu baax a baax te lu baax rek la ñor ndax euh, Oustaz Mbaye Ndiaye kii mhm. fan yi dong yendu na sama kër mhm. ànd ak ñaari sëti Cheikh yandu fa muy sëñ sëñ aadama ak sëñ Chouaïbou allah akbar di di di di di di sëñ sëñ seen waajur te ba ñu ñëwee di samay kilifa waaye dañoo ñëw mel ni samay morom alhamdulilah kon nag moom ñoo ngi leen di ñaanal baax a baax rek fi ngeen bëgg a àgg ngeen àgg fa ci doori Cheikh naa Cheikh Abdou Khadim jërëjëf baax na jërëjëf sëñ si nii noonu sëñ aadama ñu ñëpp rek sëñ bi tàqaleel ma ah. dëgg ak fen ah. euh, leeral ma hmm. as gor li nga xam ne dafa war rus da ko hmm. ki nga xam ne da dem gëstu ñëw mu ne la maa jox sama yëfi bopp hmm. te koo xam ne ñëpp ah, xam nañ fu mu toll ci xam-xam ak ci baati at mi nga xam ne moom la ma njëkk woo ma dem fa xam naa nga jégal njëkk ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Mbaye Ndiaye ziar na bu baax. waaw sëñ Mori ñu ngi lay ziar. allo. waaw ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi lay dégg waaw sëñ Mori. waaw tal la sëñ Abdou Karim Kane la. waaw waaw xam nga. ñu <laughs> ngi ziar bu baax di ziar Baye Dame Sall moom. tey tey sëñ Mori nañ la dégg. wax dëgg yàlla ñun de moom rëccu wul moom bi ndëkkee Baye Dame moom. alhamdulilah alhamdulilah. ñaan na fi mu bëgg a ci doole sëñ Tuubaa yàlla suñu borom àggale. amiin yaa rabbi amiin amiin wax dëgg yàlla yëpp ñu ngi teew ci këram di fi tudd baatu la ilaha illallah. tubaarkal tubaarkal alhamdulilah allo ah bisimilah bisimilah waaw ba tax wax dëgg yàlla kon moom ñoo koy sant bu baax ci di ko gërëm ñoom ñëpp ci barke Sëñ Tuubaa waaw moom daal sëñ Mori na ngeen ma nekkal foofu ma nekkal fii ah. barke sëñ Touba wax dëgg yàlla ñu kontaan nañ bu baax kontaan nañ bu baax a baax alhamdulilah alhamdulilah waa daayira Nuuru Muniru nag moom ñëpp ngi nii toog di la diglu alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah dëgg yàlla rafetlu nañ wax ji bu baax a baax alhamdulilah alhamdulilah baax a baax waaw nuyu ma sëñ Taara ñoom ñëpp jëwrin waaw te nga ziar ñu bu baax suñu bàcc jëng moom nga àndal ñoo leen di ziar moom itam day sa yàlla ko te ay déwéni déwén amiin yàlla suñu kanam loolu ci barke sëñ Touba amiin yàlla baax na jërëjëf baax na jërëjëf baax na jërëjëf waaw sëñ Bay hmm. Euh, laaj nga lu am solo. Ah, sa diggante sëñ Moustapha Mbaye. sama diggante sëñ Moustapha. Ah, bëgg na nga xuus si baax a baax. maanaam sëñ Moustapha. Hmm. bi ma ñëwee ne ko gëstu naa. Ah. waaye Mbàkke loo ma jox moo ma gënal. loo ma joxut. Hmm. ci la njëkk a yëkkati. Hmm. baatin jox ma ko. te bi ma koy jox. samay as sax àggagut foofu. waaye ñoom de dafa am lu ñuy seexul mu rab seexul mu ràbbi. dafay am lu muy xam li mu lay jox. du ko tënk ci at. déedéet mu ko ci at da koy tënk rek xam ne yow mi sa roog gi àttan na ko rek mu jox la ko. Ah, sa kii waaw ah. te lu jiitu loolu sax. Hmm. li ñuy wax wërsëg dina jóge ci njooñ. Hmm. na ku ku ku mos dem ci moom. salaamaaleykum. Ah, am na ku mos dem ci moom. Hmm. ne ko sëñ Moustapha sëñ Dame mii. Eh, eh, maanaam eh, yaa ko yaa ko far da waaye bu dofee. dana dof ndax ndax day xele bu ndaw te day tëju rek. te day sëñ bi daal di may woo. nga xam ne bi may woo am naa tiitaange lool. tiitaange mooy am na lu ma mos. Hmm. te it ndax sëñ bi dana ma ko bàyyi lool du ma ko bàyyi. Hmm, hmm. bi ma ñëwee sëñ bi laaj ma ne ma ana looy liggéey ma wax ko. waaw waaw. bi nangam laay liggéey. Ah. mu ne ma loo ma ne ko mbàkke damaa xam ne. Ah. gaay yàlla gaay yàlla yëpp ci wéetal suñu borom. ci la ñu amee seen i cër. waaw fi dana bëri jóg di jug ne ma waaw góor. ne ma si karal lu la neex. li nga ci attan danaa la ko jox li nga ci attanu ma téye la ko ba yow ma allahu akbar macha allah te loolu sax ah. sëñ mbay lu tumuranke la lu jafe lu jafe surtout nag rawatina nit ñi ndax dama ah. naan ah. yi ci ñi yi dañ leen a war a teg ci yoon hmm. ndax nit ñi dañoo mar bëgg naan xele bu maree bëgg naan te bunuñu ko ndox mu sell mën a naan boo liggéey lu mu gis rek muy muy dem ndox rek mën na koo naan koo naan lu wér nga wax léegi àgg na ci baag ndax xale yi hmm. léegi suubu nañ dugg ci loo xam ne hmm. waruñ caa dugg te ah. dañoo gisut ku leen teg ci yoo te sëñ Moustapha li ma doon defal hmm. génn ko ah, ah, déedéet génn man mboolem li may liggéey sëñ Bay lenn lu may liggéey loo xam ne du sëñ Moustapha ma ko jox alhamdulilah lu jafe la de sëñ Moustapha li may liggéey lépp li ko commencé ci tur yàlla laas yi may def yëpp sëñ Moustapha moo ma ko joxal boppam alhamdulilah alhamdulilah xasida yi may jàng mm. sëñ Moustapha moo ma ko joxal boppam alhamdulilah waaye bi ma ko joxee yëmut ci loolu ah. àgg naa man ci mm. daa mu ne ah, mu ne ma na nga xam ne képp koy ñaanal maa koy ñaanal alhamdulilah alhamdulilah te du ma ko neexal ah. te danaa ko fekk lu weer la te dafa mel ni sama màggal gële mm. am na lu ma ci waxoon am na la toog naa ni leen ñi yàlla bind ñëpp sëñ Moustapha ma ci gënal sañ nga ko xam nga lu tax te wax jooju dama ko jële ci waxi maam Cheikh Rafal maam Cheikh moo ne. Hmm. diggante taalibe ak sëriñam. Hmm. bala moo jot ak dëgg dëgg sëriñam. Hmm. day jàpp ne góor ñépp ay jigéen lañ. sëriñam rek ay góor. allah te nee na bu mu génne kenn nag. kenn ku ne xam ne diggante maam seex ak Cheikhuna Cheikh Mouhadim. fa mu ko tegoon. lamiñ sax du ko laal. maam Cheikh. sëñ Tuubaa moo ko gënaloon ku yàlla bind. ku yàlla bind. sëñ Tuubaa li mu amoon lépp. Mm. li ko yàlla joxoon lépp. Mm. teg na ko ci loxo Maam Serap Fall. Mm-hmm. ndax la tax ñu ne baabul mu di diina. Mm. booba la jeexal. kon li ñuy ñun li ñuy royee Seex Ibra mooy kenn ku ci ne nag sëriñ ba nga xam ne moom nga jokk. na nekk sama sëñ Tuubaa. sama sëñ Tuubaa. bi bi bi may waxtaan. may leen sëriñ Tuubaa moo a gënal. Ah, ku yàlla bind ah. waaye nag loolu bi ma ko waxee. Ah. ñëpp dugg nañ ci. ndax sëñ Moussa moo ko tuddee ah, ah. tudd naa sëñ Mourabi ah. tudd naa maam Thierno mm. tudd naa seexu naa seexul Xadim waaye nag tudd naa Seydil Awal Noor Axira làmb moom bàyyi daam mm-hmm. dañoo wax ne làmb kala jàggi róor mm-hmm. wér na waaw làmb wér na kala jàggi róor aw wa fu doon yi moom ñun jëmanditul sëñ Tuubaa kenn ku nekk nga jamono teel mm-hmm. te mu def ci yow loo xam ni dara la leer lii di sëñ Tuubaa rek ci mag ña kooku doo ko ma a yemale ak kenn beneen bi gis dugguma la euh, keroog bi nga xam ne dem naa ne ko Mbàkke mm. sama am dafa wax ne ku ko defal loo mën mu defal loo mën hmm. ku ko defal loo mën mu defal lu la jomb man mbàkke nag damaa bëgg lu ma jomb hmm. te lu ma jomb nag mbàkke maa ngi koy amee ki hmm. def lu xam nga lu ma ci tegal ne ma yow sama doom nga mënu laa sas man ko mbàkke dafa mel ni sëñ fàllu te am na lu ne waxante woon sëñ tubaa te loolu dama la ko bëgg a delloo mu ne ma lan ma mm. ne ko man damaa bëgg a jaay sama njuréel jënd ko taalib mm. mu daal di ree mm. daal ne ma kon seetal ja seetal noo mën a liggéeyal nga liggéey ko ma ne ko Mbàkke damaa bëgg nga wax ma ci waxtu euh, ci ban waxtu laay liggéeyam mu ne ma màggal ak daaru màggal ak maam Thierno ku ko ku ci liggéey sëñ Tuubaa dana la fay maam Thierno dana la fay mu ne ma màggal Tuubaa màggal sëñ Tuubaa du ci waaye sëñ Tuubaa dana la fay waaye man nag soo may liggéeyal nag may liggéeyal kas rajo bi kas rajo bi ndax man lu ma am ci laa ko am te soo ma ci liggéeyalee mm. dinaa la fay mm. maam ci yoon la fay suñu tubaab dina la fay ma ne ko mbàkketaan naa loolu waaye gis naa ne ba ma doxee diir bu gàtt mm. lu ma jomb la ma doon am la ma doon wax am naa lu ko ëpp ndax man jàpp mënu sama dund dinaa toog sama kër koo xam ne wóor na mën seetu suñu tubaab la ñëw am ay yitte wax ma ko. Mm. nangoo yëkkati téeméeri ni jox ma ko. Mm. te dama ko naan demal toog déglu. <laughs> allahu akbar loolu ñun man ñun moom mat nañ ci seere loolu moom ñun mat nañ ci seere moom. waaw te fi mu ne am xam ne ah. du ñuy wax ci rajo. Ah, ah. Mm. waaye sama diggante ak sëñ Moustapha am naa yëg-yëg boo xam ne man jàpp ma ne. nit fare na ma comme Cheikh Moustapha alhamdulilah loolu jàpp ma ko jërëjëf Baye Dame kontaan lool macha allah xam naa 88 rek 628 1905 képp koo xam ne bëgg nga dugg ci émission bi bëgg jot sëñ Dame Sall wala nga bëgg a ngir sëñ Moustapha Maymuna bis boobu nga xam ne moom la sëriñ Dame Sall di def fële ca Touba Mbëbëril euh, waaye quartier Firdawsi incha allahu rabbi suba lay doon képp koo xam ne bëgg ngaa participer ci waxtaan yi 88 lay doon 628 19 05 88 628 19 05 kon Baye Dame xam naa rek mu salaamaaleykum wa rahmatulah waaw allo. salaamaaleykum waaw ñu ngi lay dégg. maaleykum salaam. ku teel kooku. kooku man la Soxna Ndiobo Diop. Soxna Ndiobo ñu ngi lay dégg. waaw ñu ngi sant Baye daam di ko gërëm. waaw waxal moom waxal moom. waaw allo. ah Diop Diop tubaarkalla. waaw Sall. ah Diop Diop ñoo ngi sant di la gërëm. alhamdulilah tubaarkalla ndax nit ku baax nga. ndeysaan ndeysaan ku am jàngoroom ñëw ci yow. ndeysaan. da nga koy defal. ndeysaan ba bu ñibbee jàngoroom jooju day fiir. ndeysaan ndeysaan ndeysaan doo ko ci laaj dara. boole di ko wax loo xam ne sa suur bu ci xalaataat di ko def rek lu hmm. baax rek la siy jëlee ndeysaan ndeysaan ndeysaan lay sant di la gërëm alhamdulilah ndeysaan bu baax nag ah, maa ngi lay sant di la gërëm bu baax waaw ndeysaan na yàlla defal li nga bëgg yaa ko xam yàlla xam na ko yal na la ko defal amiin yaa rabbal alamin bokk ñëpp waaw kay jërëjëf waay baax na jërëjëf waaw jërëjëf soxna Jogos moomu euh, sëñ Bàcc Jéng mi mooy wasilaam hmm. muy soxna soo xam ne ku ku ku nu bàyyi xel la hmm. te sëriñam bi. dafa am ko ne salaamaaleykum wa rahmatulah na njëkk ci liñ ko mën a. waaw ku tedd kooku Ndeye Fama. waaw Ndeye Fama coono yi. ñu ngi ziar bu baax a baax a baax. alhamdulilah. ñu ngi ziar dañ daan ah, ngi lay dégg la baaraam ngeen ziar. waaw suñu borom fa yor ziar soxna si ñoo ngi ne ziar baax a baax a baax. ñoo ngi delloo ziar baax na sàmm si ñaan la fii ci. waaw ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan si ñaan si ñaan tubaarkal tubaarkal. ñoo ngi ziar bu baax a baax ana waa kër. alhamdulilah ñëpp a ngi fi tubaarkal tubaarkal. ah moom day am na solo lool lii lu kontaan nañ. alhamdulilah alhamdulilah kontaan nañu baax a baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. wax dëgg yàlla ñun mënuñu laa fay. alhamdulilah alhamdulilah mënuñu laa fay. alhamdulilah tubaarkal tubaarkal. yàlla ci am fay yàlla na la fay. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah mm. alhamdulilah ah jërëjëf jërëjëf si ñaan jërëjëf nuyul ñu waa koñ yëpp ñoo ngi leen ñaan suñu borom dafa leen tawfeex bu baax a baax a baax a baax bis boobu it ngeen xam ne seen bis la hmm. jërëjëf ñoo ngi koy jaajëfal baax a baax dafa mel ni rëcc na bàyyi daam ah, sëñ soxna Fama Sagnane ak soxna ah, waaw ñu ngi lay jaajëfal baax a baax a baax képp ku bëgg a àddu ci émission bi rek bëgg a jot Baye Dame Sall 88 ngay def 628 19 05 88 628 19 salaamaaleykum wa rahmatulah aleykum asalaam wa rahmatullah baax ko tedd kooku ndongal Cheikh Abdou maa leen ndongal Cheikh Abdou May Daaru May Daaru Salaam ñu ngi siyaar baax Cheikh Abdou moom mooy nag baax a baax ah waaw ah, sëñ Dama lay dégg waxal ak ah ndeysaan yàlla suñu borom bokk boo bokk jégal baax a baax tubaarkal la la ah, amin yaa rabbal alamin amin amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal amin amin amin amin bokk nu ñëpp rek man nag mbokk maa ngi dëkk bokk dooru islam ndeysaan ndeysaan ndeysaan tubaarkal la sama wasila moo doon Cheikh Abdou moom soxna May. Hmm, ndeysaan ndeysaan tubaarkalla. toujours doom bi moo fi nekk ah, mooy Cheikh Abdou Xabar. ah Cheikh Abdou Xabar waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. Hmm. waaye man di wax di yàlla maa ngi leen faadu lool. ndeysaan ndeysaan tubaarkalla tubaarkalla sopp nga ko mat sopp. alquran sopp naa ko. wér na wér na sopp nga ko mat sopp. wallaahi sopp naa ko. wér na wér na wér na wér na wér na wér na. man nag maa ngi takk ñaan téeméer ñëpp. incha allah. ngir jëmmi maam taxam Mm-hmm. lépp loo xamante ni aajo la rek. Mm-hmm. maa ngi leen di ñaan loo rabbi. Mm-hmm. maa ngi leen di ñaanal yéen ak bu am ngërëm ak suñu Tuubaa yaa toog la talam. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin bi de moom mm, ñoo ngi lay delloo siyaare baax a baax a baax tey ñaan li nga li nga bëgg yaa xam. waaye noo ñaan suñu borom defal la ko ci daraja Cheikh Moustapha. Ah. Euh, ndax euh, Cheikh Abdou moomu de. Mhm. Euh, sëñ sëñ daana njabootu may moom. Mhm. ñëpp moom dafa mel ni suñu borom. Mhm. da ko préparé soxna may Kabir. ndax sëñ Moustapha am na bis mu ngi may nettali loo xam ne ci soxna may Kabir. keroog sëñ bi dama ko nettali ba mu yàgg rongoñ gi tuur. te xam nga loolu lu yéeme ci cër boo xam ne soxna may da koo am ci. Cheikhouna Cheikh hmm. Moussa Kane. sëñ dama koy nettali keroog. Hmm. ba mu yàgg rongoñ gi toor nga xam ne booba ñi muy duma xool ah, ah, ah, koy jaajëfal moom moom te dama ko wax ba noppi. Hmm. wax ma ne ma. cër boobu nag. sëñ Tuubaa jox na jox na soxna may cër boo xam ne. kenn ci njabootam gi fekk daal ne ma salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ Mourou Diop ñu ne caa. Touba Samb sëñ Baara Khourédia. Touba Samb sëñ Baara Khourédia. sëñ Mourou Diop jëwriñ ne. ñu caa ba ndeysaan Diop Diop sëñ Mourou ak moom. sëñ bi Sall. waaw sëñ Mourou ñoo ngi leen siyaare baax a baax a baax a baax. Sall Sall Sall. ñoo ngi leen siyaare baax di la ñaanal ngërëmu Cheikh Moustapha. allahumma amiin. Oustaz Mbaye maanaam kii. maanaam fa ca euh, saam saam moo fa moo fa nekkal sëñ Mbàkke alhamdulilah ñoo bokk wenn wasila alhamdulilah euh, muy ku am pas-pas ndeysaan macha allah euh, yaakaar naa mos naa am nu may nettali fan yee paas ci aw roxinam ah, ah, ah. ci lu ko kilifa ndeysaan macha a waaw ba tax mu teg ma ci kanamam ah wallaay ndeysaan sëñ Modou yàlla na nga wér te yàlla nga gudd fan amiin allahumma waaye yàlla nga am gërëm sëñ Tuubaa ak jullit yëpp rek amiin amiin waaw moom ma ngi noonu di sàkk ngeen ñaan ci suñu na fi yàgg te wér waaw sëñ Tuubaa ak sa sa dana suñu daam yàlla na nga gudd fan te wér lool. amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin wax dëgg yàlla roy waay lañ la def. tubaarka tubaarka macha allah. ndax ñoo bokk sëñ bi. tubaarka la waaye nag gis nañ taw taxin te bëgg nañ ko lool. tubaarka la. ñu naan kattan bi ci waa. ci hmm. daraje soxna May. Hmm. yàlla na leen yàlla defal fan bu gudd ak wér. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. te saa si itam képp koo xam ne yaa ngi dégg rajo bi. Hmm. nga wax ni suñu mbàkk sëriñ Saw mooy yàlla na bu ñaanee loolu nag. Mm. rajo bii ñu toog studio mi toog. Mm. dañoo bëgg ndax xam naa ne yow. Mm. Uh, borom pas-pas nga. xam nga sa ma sëriñ. rajo bi bëgg na ñaan. nga ñaan heure bi de mu ci toogee mu ne mu nekk télé. nga xam ne bu ñu bu ñu toogee fi waaye tool fi tool jàkkaarloo moom hmm. na ñaan daal mu bokk ci rajo yi nga xam ne hmm, ñu ñu ñu ñu ñu hmm. ëpp doole ci Sénégal waxuma la waxu ci àddina bi ah. waxuma la Sénégal ci àddina bi ah. te lépp lu rajo di teewlu ko ah non non ko ñaan ci barke Sëriñ Moustapha alhamdulilah yàlla amiin yàlla ndax eh, li nga wax ci Sëriñ Moustapha may di baax a baax ndax naa màggal bi nga xamante ne ci la ma courant bi jàtte woon dañu dikk bi mu buufee sama kaw ne ma dara doo dara dañuy liggéey ci boobaa léegi yaakaar naa moom lu ma daloo rek saafara woon alhamdulilah xam naa ne gëm naa ko gëm koo xam ne tam ne mboolem ko luy dox ci kaw suuf wala luy noyyi moom damay jàpp ne fi mu faa may rek moo fi wér na wér na làmb rek rek loolu moom wér na moom wér na wér na wér na ndax it xam naa ne damay nekk ndigal yàlla dogal na man la ko yàlla taamu indi ma kër Moussa ah, ma dem digal ma dem daari ma wér na wér na wér na suñ Moussa may nag yàlla na yàlla yokk ay ma woon leen mm-hmm. na te jëmm ji fi nekk di sëñ Mbàkke sëñ Moussa may lépp lu waay di tàpp ci moom da nga ko na wér na wér na waaw ma ñibbi ñibbi na sëñ Mbàkke ñibbi na sëñ Moustapha ñibbi nañ sëñ bi ndax de nee na nee na day nit day am fulla mhm. waaye doo doon ako xob woo xamante ne rek lu jóg yóbbaale la mhm. Mhm. kon nit ki na xam li mu doon xam ki mu doon mooy lan ñun amuñu lu dër mu ci amuñu lu arafa waaye noonu ñaan ci rajo Sëñ Tuubaa lépp loo xamante ni mi ngi wax asadu an la ilaha illa yàlla mbàkki Seex Musaa Fay faj say aaju daal dañ koo tënk boole ko ñëpp daal rajo boobu jëwriñ jooju la daal itam nag ñoom ñaan ci rajo Sëñ Tuubaa lii Serigne Moussa may di séddale. Mm-hmm. na ko gis fii bay séddale bala bala ëllëg. waaw ah. waaw ah. dina am de. Ah. amiin sunu xol seet na ci moom lool. alhamdulilah alhamdulilah. amiin sunu xol seet na ci moom lool. alhamdulilah alhamdulilah bis bi nag moom ni nga ko waxee rek. Mm-hmm. daal moom nun kuñ am. Mm-hmm. ak kuñ xam moom woo nañ la. wér na wér na. te fas nañ yéene di ñaan ci dajee suñu guddi gii ñu nekk. jàng nañ ci juróom-ñaari géwër ci ndax suñu suñu am na lu ma lu ma defal ci géwër képp ku jëf ku fa teew ku ne alhamdulilah moom ñoo ñoo ñoo ñoo ko cee dagaan alhamdulilah macha allah ñoo ko cee dagaan bu a baax alhamdulilah yàlla yokk sa taxawaay Ah, jërëjëf sëñ Modou Diop ah ñoo ngi koy siyaar baax ah, bokkum Baye Dame ah, la ñoo bokk sëñ Moustapha May mm-hmm. mu doon koo xam ne Baye Dame dañu ma xoolee ci ay biram mm-hmm. macha allah am na ko rek liñ salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum mbokk mi dafa mel euh, dégg bi leexul 88 lay defaat 628 5 bisimilah Baye Moussa jaajëfal foofu mm-hmm. bisimilah jërëjëf sëñ sëñ Modou mm. euh, moom ñoo koy sëñ Mbaye sëñ Mate Diop mii ku am mm. pas-pas. Mm. Euh, kenn ci ci ci ci taalibi sëñ sëñ Moustapha yi la waaye kenn la ci taalibi sëñ Mbàkke ah. ndax moom loolum wax. Mm. courant maasoon na ko ba kenn ku ne jàpp ne. kii moom dootul rek. ndeysaan waaye keroog bi ko sëñ Moustapha tiimee ne ko. Euh, daru ci euh, ci mujj. jàmm rek. Ah. ñu ngi toog waat. dama ko nekk léegi salaamaaleykum wa rahmatulah daa mel dafa yokk rajo bi xam naa ne diggante bi neexut salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. jàmm ngeen yendoo. yàlla jàmm am macha allah. <laughs> bisimilah ñu lay dégg baax bisimilah ñoo lay dégg. waaw. sama sang boobu maa ngi koy sant di ko gërëm. tur na ngay baal sama soxna aw sama. bisimilah waaw waaw ñoo lay dégg. Ah, waaw sama sang boobu maa ngi koy sang di ko euh, sant di yàlla fu mu bëgg a àgg rek yal ko fa yàlla yàggale ci barkeb Serigne Moustapha May. amiin naa ko bu baax gërëm naa ko. amiin amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal nag nee daa mënta woote waaye bu mënoon a woote mooy euh, dafa dafa xaw a. waaw di sant di sant di sant di sant Oustaz euh, Mbaye Ndiaye mooy soxna Nogoy Fall. soxna Nogoy Fall maanaam kooku mooy mooy sama paawo. mooy sama paawo ndeysaan. moo àndoon ak man ca ba dara du dara. ndeysaan ca ca ba mu méttee lool. ku ko de koo xam ne Dakar la juddoo yaroo fi mu andi ko ci àll boo xam ne. xam dépasse amu fa. am ni amu fa. mu ànd ceeg man ba fi mu ne ñëpp maase nañ ne mooy sama soxna Awa Gadiaga ndeysaan alhamdulilah waaye nag du luñ ko takkal lu mu jëf la lu mu jëf waaye so euh, sëñ Bay buñ jógee foofu dem ci suñ diggante ak sëñ bi sëñ bi waaw mooy sëñ Moustapha. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. alhamdulilah bàyyi daam ki sëñ Moustapha dina ko leeral ko baax ñu siyaar. Oustaz ba nga lay ziar lu bari. yàlla yàlla nangu bari seen Xadim Badiane. Serigne Badiane la Touba. Eh, eh, Serigne ñu ngi lay ziar baax a baax. ñu ngi lay ziar lu bari bari bari. wallaahi gis yàlla yàlla nangu ziar lu si waaw. Oustaz suñu xol dafa sedd. alhamdulilah. suñu yaram dafa daw. alhamdulilah. sëñ Dame dañoo jël jëg la ne ma nuñ jug leer. wallaahi di saan wallaahi di saan. ja moom daal dëgg-dëgg mu rafetlu wax ci moom. alhamdulilah li mu wax sëñ Moussa Mbaye ci moom la nekk. alhamdulilah. sëñ daam kuy la. ñun ñi dañuy taxawaay taxawaayu seen ndax kuy moom ak ab seen ndax. fa mu dafa rek fa la xam ci la fa toll. wallaay ndeysaan. waaye giñ naa sëñ Tuubaa Mbàkke sëñ daam. ndeysaan suñ borom lañ koy bàyyal mu fayal ñu ko adduna fayal ñu ko àllaaxira. alhamdulilah alhamdulilah. bari na fi góor yàlla yoo xam ne nii. moom dafa seen adduna dafa seen àllaaxira. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan kon tey bu taxawee fii. di def bés bii. wallaay defal lu ko war. wallaay ndeysaan suñu xol dafa sedd. Hmm. suñu xol dafa fees. wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan sëñ Sam mënuñu wax ak moom. ndeysaan ndeysaan borom baax de. daara jàngi fees del dañu jàngi jàng xasida dañu jàngi sikkar dañu jàngi jàng alxuraan alhamdulilah dañ ko rek kon kon ci wax daw si waa ah, daw si wallaahi bu ñu wutoon sañ daam sàll foofu ñu koy waxee ji wallaahi di sant ñoo ngi koy sant ah. ñoo ngi koy gërëm ah. ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla làq fa yàq yëggu doole sëriñ Moussa May Oustaz Mbaye sant nan la jërëjëf dañuy da baax ndax yow mii dañ ñoo leeralal alhamdulilah tey li ma am yëg-yëg moom tey mooy comme Cheikh Ibrahima Sëñ Touba alhamdulilah alhamdulilah ndax pour war ñëw lii mën naa mën nañu mën ngeen ko bañ a xam alhamdulilah macha allah kon jërëjëf jërëjëf yow itam jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf Serigne Badiane ñu ko ziar baax a baax ah ñu ngi ziar lu bëri jërëjëf macha allah moom rek borom baax nga ah ku baax la koo xam ne kenn la ci nu ah, walaay ndeysaan euh, waaye oustaz Mbaye xam naa ne autorité ah. euh, bi ñu ko may waaw waaye nag ñëpp moom fii ba euh, deux heures incha allah ñu ko may waaye ah. sëñ Moussa li ma bëgg a leeral ci moom ah, ah, dëgg-dëgg sax. Ah. Mm, su ma ko waxoon sa sa sama sa sama mbir du ko attan. am na luñ ci xam. waaye lii wér te wër mooy. sëñ Moustapha mooy insaanul kaamil. Mm, mm, mooy seexul muraad bi boo xam ne. maanaam defar gi muy defar taalibe bi. mën na koo defar ci liggéeyloo ko waaye mën na koo defar ci toog wax ak moom mën na koo defar ci ci toog ak moom ree ko benn yoon dong. mooy laa mujj loxo sax dóor ko. moom nu lay defaree. nu lay defaree. nit dana fa ñëw ah. bi fi nekkee ni daal di ñëw nuyu ko ah. da ngay sëgg nuyu ko da mu daal lay rek ah. te sa biir di defaroo nga jóg seen sa biir defaroo sëñ Moustapha nag ku ko xam dëgg-dëgg boo boo accès boo ko joxee loxo rek suu ko nuyu rek boo ko waxee aajo rek lum li njëkk asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah Pape Mbaye Ndiaye ku tedd kooku Cheikh Boye Touré métallique ndeysaan ndeysaan siyaar <laughs> naa ñu baax a baax ñu ngi rafetlu émission bi. yàlla yàlla am na ko ñu ngi si ndam ñu ngi si ndam jërëjëf jërëjëf Cheikh Boy jërëjëf jërëjëf. Sall ñu ngi ko. alhamdulilah jërëjëf waaw maa ngi lay dégg waxal ak moom waxal ak moom waaw ñoo yow ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax. amiin barke suñu borom liggéey bi. amiin amiin amiin. Oustaz Mbaye maanaam buntu boobu nga xam ne moo nekk ci buntu kër gi moom it moo ko liggéey liggéey bu sell ah. mën naa ne bi ñu sëriñ Badiane boole ba léegi hmm. lépp luy métallique ci kër gi moom moo ko moo moo koy def alhamdulilah waaw te it am ci taalibe lool yàlla ko yàlla fay euh, ñoo ngi koy a baax amiin amiin amiin amiin sàlla moom daal moom daal leneen daal kalimatu xaq daal luñ ci wax ci foofu rek doyu doyu ah, ah. maanaam baatu bi laa ilaha illallah daal waaw euh, daara moo ko samp hmm. waaw ah, te te bu ñu sañoon daal lu lu lu lu luñ jox rek doyul. Hmm. Hmm, hmm. jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. alhamdulilah ñu ngi sant Ousmane Média Ousmane Média jërëjëf. macha allah jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf macha allah jërëjëf jërëjëf. di kontaan lool yàlla. waaw oustaz. Ah. nga xam ne sëñ bi eh, ci ni muy defaree dafa bari. dana da nga ko nuyu. nuyu ko jox ko loxo rek mu daal lay dóor. fekk loolu ci sa cat dafa nekk wala te boo seetoo sëñ Moustapha saa boo ko nuyoo rek a jogox rek aleykum salaam sëñ bi baanaam sëñ Saar yi ko leeral ziar baax sëñ ah, Bass a jóg ko waa Mbawrin ah, ziar na baax a baax a baax sëñ Baye moomu de wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla yàggal ci sunu kanam bu aywa amiin yaa rabbi tubaarkalla waxal ak moom waxal ak moom ah, sëñ góor ñu ngi lay ziar ah sëñ góor ñoo ñoo leen dafay yoon ziar Sall alhamdulilah Diop tubaarkalla na ko yàlla ak sëñ doom jënd amin yaa amin amin amin amin amin amin amin ndax de sama rakk bi jël soxna ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan taxaw woon nga fi taxaw boo xam ne si ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan lay daa meloon ni sama sëriñ suñ sooy jënd moo fi taxaw ndeysaan alhamdulilah alhamdulilah ma ci lenn lu man metti woon ndeysaan ndeysaan tubaarkal tubaarkal maa ngi lay ñaanal di la gërëm alhamdulilah di la sant amin yàlla yàggal la fi amin amin ci kanam njaboot alhamdulilah tubaarkal tubaarkal yëpp moo leen jëlee alhamdulilah alhamdulilah ci barki borom jënd alhamdulilah ñu itam noo ngi lay ñaanal bu baax a baax yàlla na la ko sëriñ Tuubaa defal amin yaa rabbal alamin amin Jóob amin Jóob jërëjëf jërëjëf ah, jërëjëf nuyu ñu waa ba wéral yëpp tubaarkalla ah, ah. alhamdulilah jërëjëf euh, sëñ Gora Diop ñu ngi ko jaajëfal baax a baax baax a baax jàppal képp koo xam ne rek dugg ci émission bi moom ba tey rek mën ngeen di ànd ak ñun ci 88 628 19 05 te ji ñu dalal fii suñu mbokk suñu xarit suñu soppe sëriñ Dame Sall diggante ak sëñ Moustapha Maymouna yaakaar naa diggante la boo xam ne ña fekk ñëpp de xam nañu ñun ñi nga xam ne fekkoon jamono suñu Moustapha May salaamaaleykum nga diggante bi neexul tax kay noonu la kon xam naa ñun nga xam ne fekk woon jamono yi sëñ Moussa May itam moom mi ba ni ku sëñ Moussa xam-xam ni du ñu bakkan te it nit du ñu leer suukar ba tax ñu di la tàggal say maam mais itam nit du ñu leer nga def ci lislaam lu ñaaw ba tax itam ñu lay xas déedéet ñun lislaam rek moo na yor akuk taalibe te loolu la ñu gis ci moom ijaaba la kon sëñ daam euh, ci nu doon defaree hmm. xam ne ma ci ci façon bu ne lay lay defaree nit ah. waaye tomb bi nga xam ne moom laa bëggoon a leeral ah. muy sëñ bi da damaa toog ak moom ah. jëfal na Serigne Touba. Ah. jëf joo xam ne. Ah. salaamaaleykum. ku baax kooku. waaw wax am na. alhamdulilah alhamdulilah. ñu ngi lay sant bu baax amiin jërëjëf waay amiin dafa mel ni dafa mel ni maanaam ñi seq taabal ji hmm. muy Oustaz Mbaye Ndiaye ak sëñ Bàcc Jëng mi hmm. euh, waaw dafa mel ni ñetti pas-pas la benn pas hmm. euh, la waaw ñu fi ñëpp lu baax rek ren wax mu nuyul ma ko baax a baax a baax soxna Wari Ñaŋ waaw ah, soxna Wari nee da ah ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a ñu ñoo xam ne sama njaboot la nga xam ne du ñu def dara te te te te ñëw ñu ko fàttali salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. tur bi bisimilah tur bi ak fooy wootee. Fatou Ndiaye Faye. ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan Faye. waaw mooy kooku sama sama mag la ñu bokk. maa ngi rafetlu waxtaan bi suñu xol sedd na guy. alhamdulilah suñu xel dal na. alhamdulilah alhamdulilah. waaw sant nag li mu sant yàlla nag mu sant yàlla waaye noonu sant na yàlla sant na. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. ah sant na suñu waa nga xam ne nii. Mm-hmm. lii lépp ci liggéeyam la. moom la lépp moom la di sant. di ñaan doole koo sant. di sant sëñ Moustapha May ndax man sëñ Moustapha May di bari mën naa ko. ndax dama ko daan. ah da ko daan fekk ah, ah, waaye ndeysaan xam naa lu ci avenir rek waaye daal ko mën a àggale. Ah, incha allah kooku ñoo defal baax. Mm, kooku mooy sama mag maanaam ci moom laa. aleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. ah, ah sëñ. a Faye Nourou Daré. ah est-ce que a ce que Daouda Faye ah, ñu ngi ziar baax. waaw maa ngi lay ziar. waaw sëñ Daouda. lay ziar bu baax. sëñ Daouda ñoo ngi lay ziar baax a baax a baax a baax. waaw dégg naa daal comme la ma la waxoon rek. waaw li ñu daal jombale boppam dara. wér na wér na wér na wér na. jombale boppam. wér na wér na. waaw sëñ day sëñ na wér na. waaw saxal ci li nga ne rek. wér na na alhamdulilah. 88 628 17 588 628 705 ñu ànd fi ak Serigne Dame Sall muy waxtaane tey ji sëñ Moussa Maimouna diggante ak moom ñoom ñaar nekkuñu woon euh, ñaari nit waaye kenn lan wan ci diggante Serigne salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax kooku. ku baax te tur wi. ah man la Abdou Digal. Ah, Abdou Digal ah. waaw ah, ah, ñu ngi bu a baax lay ziar baax. alhamdulilah bu baax a baax baax waaw jërëjëf baax la bàyyi daal tuwaat kàlla soxna Ibrahima ah suñu baax baax baax baax am na solo lool. ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan am na solo lool am na solo lool tam uh, boobu mu nekk di wax yàlla si mm-hmm, mm-hmm. ne suñ Moustapha may moom ak defareef mm-hmm, maanaam xam naa ñoom ñi ay dongaam sax daanaka ba ma ne xam moom bëri na luñ ndax ci rajo laay waxee waaye mboolem koo xam ne doomu Sëriñ Tuubaa nga toog nga ci jal bi ak mm-hmm. mm-hmm. sa oto waaxu ba fa moom ci mm-hmm. sàkk aw lot toog moom keneen la wér na wér na de wér na de kon kooku ñëpp ko defar wér na moom defaru bi ndax ñu fi jàll ni ñu ko waxee rek moom mm-hmm. euh, képp comme defaru yomb naa xam mm-hmm. kon defaru googu moom wax dëgg yàlla ñu nekkul ne day suñu kilifa rek ñu mm-hmm. koy wax waaye xam ñun xamante ko wér xamante ko wér wér wér moom am na fu ñu féete am na fu ñu waaw waaw waaw jërëjëf sëñ Abdou Digal ah, ah, ah, moom bis daal yàlla nañ ko yàgg taxawee te képp koo xam ne ñëw nga fi moom aay joo man mën a indi rek ñu hmm. ngi ñaan ci loru Cheikh Moustapha May hmm. Hmm. ah loolu yàlla na la tàbb ak barke amiin amiin yaa rabbal amiin a indi rek jàngoro joo mën a indi yàlla na ko saafara ci barke Cheikh euh, Moustapha May amiin yaa rabbal amiin amiin amiin jërëjëf maanaam ah, nag ñu nuyu mbokki taalibe yooyu nekk ci kër gi yëpp ah, te nga leen ne nañ ñu nekkal foofu nu nekkal leen fii Oustaz Mbaye ah. kii mooy sama rakk mooy sama caatu waaju bu jigéen. allo maa yoroon daal asalaamaaleykum. waaw sëñ Baye. waaw waaw ku baax kooku. Mbacke Ndao. ah di sant sëñ Mbacke ñu ngi lay siyaar baax kay. sëñ Ndao. waaw sëñ Mbacke na ngeen def. rabakatu bu rëy bi. ak sa ak sa ak sa alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. baax bu sell gi. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf. ma ngoo dimbale ay jaam. ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw waaw li wax de yàlla rek lañ koy seedal ak sëriñ bi waaw ma sañ naa ilaa ma alim naa hmm. hmm. hmm. wallaay na azim ndeysaan ndeysaan ndeysaan sëñ Mbaye ah moo de ah ñun dañoo dëkk ak moom ndax xamuñu ko wallaay ndeysaan wallaay na azim dëkk nañoo sëñ kan mooy sëñ daam waaye buñ ko xamoon ah. ko teel sëñ Mbacke ndaw ah, la ah. ah. ñoo ngi koy siyaare baax baax ak mbokki Firdaws yëpp rek ak mbokki tubaab bi salaamaaleykum warahmatullah salaamaaleykum xam naa ni diggante bi neexut xam naa ni sëñ Moudou euh, da nga nuy may deux minutes mm-hmm. rek mu leeral tuur sëñ Samay mm-hmm. ñëkii salaamaaleykum warahmatullah une minute salaamaaleykum salaamaaleykum diggante bi neexut mm-hmm. xam nga bu ñu kii minute rek incha allah. mu am lu mu jéggi ci sëñ euh, Famay. ñu doog continué waat incha allah ak programme bi. Mm, kon ñi nii dégg. Mm-hmm. une minute rek incha allah mu leer a tuuti. Mm-hmm. Oustaz Mbaye. Ah. toog ak moom mu wax ma loo xam ne ci kàddu boppam. Ah. loolu ku nekkul nitu yàlla pire. Ah. koo xam ne confirmé woo sa ba mu leer. Mm. doo ko wax. Mm. ndax damaa toog moom. di waxtaan moom mu ne ma. soxna may Kébé Saba Juré. liggéeyal na sëñ tubaa ci alxuraan loo xam ne hmm. sëriñ tubaa fayee na ko loo xam ne hmm. kenn fekk ko ci ci doon ci njaboot sëñ tubaa ah, ah. ne ma ëllëg yowmal xiyaam sëñ Moussa moom wax de waaw ah, mooy wax ne ma ëllëg yowmal xiyaam bu ñu àttee jaam ñi hmm. ba ñuy dem sawara dem sawara ñi dem àjjana dem àjjana mu ne ma jullit yi nga xam ne dañoo sàgganoon ba sawara nee na ma soxna may suñ suñ tubaa dana ko rafaatale ay yoo xam ne day jóge àjjana naaw cëppeeru sawar di seppi ñooñee mm. dén bu àjjana allahu akbar waaye rek yëmu ca mm. xam nga soxna may wax ah. daal ne bërit diw ne ah. ndegam soxna may moo mën loolee nag asmaa man mi asmaa man mi allahu akbar dégg mu ne ndegam soxna may moo mën loolee asmaa man mi asmaa man mi te soxna may mooy waajuram mooy waajuram di doomi Seexul Xadiim Sëriñ Tuubaa moo ko defal loolu ah. bi mu ko waxee ba toll foofu dafa aaru ne bëri jóg di bi ne ndegam soxna may moomoon loolu asamaa man asamaa man daal di toogam ne ma ne ma daam ah. ma ne ko ah mu ne moon bokkuma ci nit yàlla yi xam ne ah. fekk sax loolu li ko indi ah. damay dama ngi ko di waxtaan waaye mu ne ma mu ne ma daam xanaa xamu ne man ñi ma loon ñëpp hmm. faatu nañ hmm. ma ne ko man mbàkke man woo waxtaan du ma ci bokk ah oh. man waxtaan ko mbàkke damaa bëgg nga nekk ci suñu kanam yàgg fi dimbale hmm. mu ne ma kon da yaakaar ne li ma leen defal bu ma fi jógee mm. mu rakk ndeysaan ma ne ko waaye nga nekk fi rek ah. mun ne ma man du ci nit yàlla yi ah. dama fiy jógee rek ah. seen seen ginnaaw di seen ginnaaw di kii mu ne ma li ma lay defal li ma leen defal mm. su fi jógee laa gën a man la ko gën a man nitu yàlla pire noonu lay mel kon kooku mm. confirmé na mbiram toog naa it mu ne ma sama taalibe du ma xam fii fii ci àddina ëllëg yomul xëyam la ma xam damay xam daal ne bëri jóg di ju daal ma ak a neexoon di tey allah akbar ndeysaan macha allah xam naa rek kon macha allah ñu bëgg a dégg sëñ Moussa Mbaye war a dégg lañ ci baax a baax a baax a baax a baax ku baax kii da nga ubbi laat ligne bi rek ci 88 628 19 05 88 628 19 05 incha allah ñu ànd ak sëñ Daara salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum wa rahmatulah ku baax kooku asalaamaaleykum aleykum salaam tur ak fooy wootee soxna si salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. soxna Maga Sall. ah sëñ Dame. ah Sall Sall. maa ngi kontaan ci émission bi di rafetlu émission bi. ndeysaan ndeysaan Sall di la sant di la gërëm man meer Sall. ndeysaan Sall ndeysaan Sall. soxna Maga Sall sa mag. waaw ndeysaan ndeysaan Sall Sall Sall tubaarkalla. maa ngi sant ndeysaan macha allah soxna Maga Sall la mag ak sëñ Dame ñoo ngi koy jaajëfal baax di jaajëfal mboolem waa kër gi yëpp rek bàyyi ñu kenn 88 628 17 5 salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum bisimilah déggante bi neexul xam naa ni bu ko defee rek mu jéem a jaaraat ci suuf 88 628 75 88 628 75 salaamaaleykum. kon sëñ daam bu ko defee rek ñu daal di continuer. daam. ginnaaw ba ñu xamee ni sëñ Moussa may mun a. defal na la loo xam ni. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah. ku baaxutee kooku. Ngañ Ngañ Sarr baax a baax. Ngañ Ngañ Sarr wér. ak suñu borom. walaay dañoo jàpp rek waaye ñu ngi teewlu émission bi de. ndeysaan ndeysaan ndeysaan wallaay ñu ngi ci liggéey bi waaye ñu ngi koy teewlu bu baax. ndeysaan wér na wér na wér na wér. wallaay di sant ngeen di sant. ndeysaan tuwaarkal tuwaarkal alhamdulilah. li sëriñ da wax rek moo ci nekk. alhamdulilah tuwaarkal tuwaarkal jërëjëf euh, sëñ Ngagne Niang ñu ngi ko siyaar fara ci Touba Firdaws di siyaar waa Touba Firdaws gépp rek xam naa rek képp ku bëgg a àgg ci émission bi 88 629 5 salaamaaleykum wa rahmatulah xam naa nag bàyyi na ko bàyyi waaye sant yàlla la salaamaaleykum wa rahmatulah sant la sant la ko salaam wa rahmatulah baax kooku Pape Sall Pape Sall siyaar la baax mu lay a a baax alhamdulilah daam sëñ Pape ngeen def baax a baax a ah, ah, a baax Sall ñu ngi ziar baax. Ah, Sall Sall sëñ Bay. waaw ah. ah, Pape mi ngi woote boo décoration yi nekk ci kër gi. moom moo ko fa def. ñu ngi ziar sëñ Dame. ah suñu borom fa yool ziar suñu Pape na ngeen def Sall Sall. ñu ngi baax a baax. ah baax tuwaat ka alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi leen di ñaan baax a baax de. ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax. Ah, jërëjëf Sall jërëjëf Sall waaw jërëjëf. ñun moom xam naa mënu noo wax ci yow. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndax ndax ñun moom da nga noo féete fépp fépp fépp. ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. Mm, ndax eh, ku xeebu ni ñun. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. nga jël nu teg ñu ca kaw. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. lo loolu rek dafa des ndax nun moom lenn rek la ñuy rëcc mooy liñ lay xam waaye ban la xamee ba tey moom ak yokk rek la fi noonu alhamdulilah kon kon loolu ñu ngi koy seereen ñëpp alhamdulilah mënunoo wax ci yow daal nun daal mënunoo wax ci yow xanaa di la ñaanal nga yàgg si rek amiin amiin amiin amiin ci barke Cheikh Moustapha amiin amiin amiin a dimbali ñu ñu nekk ci sa ron rek amiin yaa di di la déglu saa su ne ndax nun saa su ne dañuy wax mat nga nub sëriñ mat nga nu baax mat nga nu mag féete ñu côté bu ne nag am na ci lu bari mu ne ko mënuñu mënuma ko wax ci rajo bi waaye suñu xol sedd na ci yow lool nu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér alhamdulilah alhamdulilah mm, ligne bi nag moo xaw a jafe kon ñoo ngi fii ci kër gi rek jërëjëf Sall jërëjëf Sall jërëjëf ki li nga doon wax Pape Sall mm. mooy koo xam kenn la mm. bokk ci suñu njaboot xam ne moom itam def dara de mm. nekk ci ñu salaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaam ku man Fall Maliou Fall Maguette Fall Touba maam seen maam Cheikh waaw yow baax bisimilah sëñ Maguette. dafa mel ni rëcc na xam naa ne 88 la 628 xam naa bu ma nee jaar fi mu jaar rek. Mbène Fall teel ma am. waaw waaw sëñ Maguette. 88 628 bisimilah Baye Dame. bisimilah. sëñ Mbaye. li nga xamante ni defar na ko ci ay doomu aadama. Ah. dafa am lu doon laaj tuuti am ñu nekk ci ligne bi. Mhm. dama ni man ginnaaw ba gisee sëñ Moustapha May moo la defal na la. Mhm. Mhm. am na luñ ci xam. ñu gis ni tam ni. tollal nga ay bunt yoo xam ne. xaalis. bu bari mën naa tegu say loxo te muy lu ñu wér. lu ñu mën a seere. waaw bàyyi daam lu waral xaalis boobu yow nga daw ko ay millions dëgmal la yoo xam ne. leer nañu ñi ni million yii kat. mën naa defaral bàyyi daam addunaam jëpp ak mbokkam. nit ñëw ba ci yow jox nangu laa fay nangami millions nga lànk loola. alhamdulilah am na ko rek ci li bi ne nañ dem jël kii ba alhamdulilah yàlla baax tubarkalla maam bay da laaj maam daam ndeysaan bisimilah soxna Ngoye émission bi ah tey am nga njëriñ moom. ah naa sa njëriñ bi waaye tey am nga njëriñ moom. Ah, am <laughs> naa bu baax. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. yàlla yàlla yokk na lu baax waay. alhamdulilah bi. al amin ya rabbal alamin amin. jërëjëf waay Fall. amin ya mm-hmm. question boobu lu ñu ñor la. waaw loolu la ndax dañoo gis. Mm-hmm. Mm-hmm. ñëw ko tey loxo. dañoo gis ndawi léegi ci xoolatul alal lu mu war a jóge ak fu mu war a jëm. ak mhm. luñ ca war a jëfandikoo. Mhm. salaamaaleykum wa rahmatulah. alors sëñ Baye Ndiaye. kooku. kii Baye Alé la. waaw Baye Alé ñu ngi ziar baax Ndiaye. kooku Baye Alé Ndiaye ba mu ba mu juddoo ba tey bu leen ma woote ci rajo. ndeysaan ndeysaan alhamdulilah ndeysaan. waaye sëñ Dame jaral na mu yóbbu loolu. man nag man nag saa borom dafa dogal. damaa am ci moom dogal goo xam ne bii mënuma koo seere ci mbiram dara ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan rawante nag képp ku mu képp ku ma xam ne bëgg nga sëñ dàmb ci yéen ñaar ñu ñu toog ak moom ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan mm. yéen moom maanaam ni ngeen mel ci man man mënuma koo wax waxu jëkkaam moom ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw daal li ma koy li ma koy ñaan moo di maa ngi ñaan sa borom guddal fanam wéral ci amiin amiin lu bokk ñëpp ak ñëpp rek amiin loolu daal mooy mooy mooy gàllaajam gàllaajam waa koñ bi amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin li ma la mën a waat li ma la mën a waat ci ant ma yaakaar sëñ daam bu nekkutoon ci koñ buñ ko yàlla nekkutoon ci koñ bi ba diggam yëgal ndeysaan ndeysaan ndeysaan li sëñ Tuubaa di baax baax baax baax musiba dal na ma ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan sëñ daam mooy kenn ko xam ne bii mboolem mi man ak sama morom jëm kenn ku ne foog nga ne yow képp la sëñ daam bëgg ak baax nag man ak baax nag foofu la mën a tàmbalee foofu la yem man de li ma ko ñaan mooy sama morom yàlla na guddalu fan wéru cëram ba ñëpp ñu yàgg ci ginnaaw ba li mu yéene ci koñ bi mu dëpp suñ kanam fekk ko ñu ñëpp ñaari ko baax a baax a baax loolu daal laa koy ñaanal maanaam daal lépp lu mu njortu lu muy ci xelam yàlla na ko saa borom kàttanal guddal fanam ba mu may ko comme mu mu ko defee. amiin man nag man nag am na lu ma xam ci moom man bu bëree wéré wéré wéré. waaw boo ko waxee ñu gëm ko de waaw. moom dama leen baag yàlla rek. parce que nga wax jërëjëf jërëjëf. waaw eh, ah, ah. dafa mel ni ah. dana am lu ma bëgg a ci loolu loo xam ne xam naa ne auditeurs yi moom duñ ko duñ ko mën a may xanaa euh, bu fekkoon dañu ma am am deux minutes wala eh, waaw may la deux minutes léegi ah, pour nga leeral ndax loolu damaa ñor ah, damaa gis ndaw ñi dañoo jóg koo hmm. gis ma ngay ñaan koo gis ma ngay def lii koo gis ma ngay nangam ak nangam hmm, hmm, ay xaalis xooluñu lu sell xooluñu lu sellul moom lu ñëw rek ñu babaxe mañaxe jéem a état si kër jéem a nangam man ma gis nit ñëw nangu laa fay ay millions nga danoo sa loola ba kooko sax ba muy dem dalaa sàng waaw waaw dafa mel ni kon kon loolu oustaz wax te da caa gis njariñ awaa ah, loolu kooko dafa ñëw nga defal ko raxas loola bi mu ko gisee mu bëgg nag nga defal ko ndekete yow ba nga ko koy defal booba am na leneen nag waaw waaw maanaam mm-hmm. loolu oustaz di wax euh, lu mat a leeral ah. ndax dana nekk ci ci ah. koñ ah. xëy na kenn ku ne ak sa xel la muy xalaat te fekk moom fañ koy fañ koy fañ koy fàkkal jiitu na ko man laata may ñëw fii ci koñ bi ñu di ma xam hmm. oustaz yaakaar naa mosaa ci waxtaan yow waxtaan nañ ci ay yoon fee ca Ndakaaru hmm. toog naa nit ñëw sant ma ne ma damaa bëgg nga liggéeyal ma. Ah. benn ndomba boo xam ne bu ko liggéey dootu kasu. Ah. ma liggéeyal ko ko mu dem booba ah. xaw ma. mu ne ñaata ngay liggéey ma ne benn junni mu jox ma ñu dem fan mu ñëw. Hmm. ne ma sëñ bi damaa bëggoon ndomba yooyu nga ma liggéey. nga liggéeyal ma ci onze ndomba. benn mën dinaa la jox un million. yow nag yi mën a jox. sa yoon bu mu ci nekk. ma ne ko. Hmm. maanaam bala muy mat dugg il faut nga leeral ma la ah, may dugg lan la ah. mu ne ma daal ah, man réseau damaa yore benn réseau ma ko réseau bi hmm. eh, mooy lan hmm. mu wax ma ne ma ñun ñun hmm. ci ñi jaay drogue drogue bu mag boobu héroïne ak cocaïne ci lañ bokk te mu ne ma suñu suñu suñu procès marabu lu mu néew néew mën na quatre cent millions allahu akbar te xaalis bi ma la jox du sama xaalis xaalisu. Mm. kees gi la. Ah. ma ne ko man jomb naa. Mm. kuy jaay héroïne ak cocaïne. Ah. ma di la liggéeyal. Mm. di la ko jox su ma ko defee kon mel ne ni ma war na maa man a jug sama der bi. Ah. dem ànd ak yow ci li may te booba nii woo marié laa. damay doog am soxna. kër sax amoo ko bokk. allahu akbar ma won ginnaaw loolu. ngir xam naa ne man li ma dëgmal fi ma bëgg a àgg fa àgg. waaye loolu it lépp ci defar suñu faar. ndax sëñ Moustapha kera bi ma joxee li ma jox ah. dafa ma tànnal li ma war a jàpp ak li ma war a bàyyi ak li ma war a te ah. sëñ bi am na leen lu ko gën a yéem ah. laata muy ñëw ci loolu am na leneen lu ma gëstu ba am ci xam-xam boo xam ne su fekkoon ne loola ñor na ma hmm. man du ma soxla ñëw di ma ñaan si dama am na feneen fu may jaar foo xam moo gën a gaaw téeméer a na fas na ci waxtaan ci loo xam ne liggéey naa ko ba xam ko hmm. ba su ma a woon xaalis mën naa ko am te ko andil waaye ma xam ne loolee fa muy jóge ah. du doon fu lew ah. te doon lu baax ah. te ëllëg hmm. danaa xalaat ne danaa lal sama rajo bi hmm. te xam naa ne sëñ Moustapha danaa jomb ne dana yëkkati ali sëñ Tuubaa jox ma ko mu dégg ne hmm. man maa ngay jaamu ay jinne way laa man maa ngay ànd ak ay jaaykat dorog man jomb naa waaye nag gis naa ne juróomi ma yooyu de ah, waaye sëñ Mbaye man lu ma soxla am ah lu wér la ñun am na su ma lewoon ah. ah. te ma dogu ci balaa suba ma jox lu wér la am na lu ci xam fayda loolu moom maanaam nitu yàlla jaam ko tu yàlla du am alal aaj fa ju lay am su ma leen woon suba nga faatu it oui la mën nga nga jam nga dajal sëriñ yu bari am na lu ci xam <laughs> loolu moom ñu am na lu ci mën a seer te loolu loolu lépp ci defarug Cheikh Moustapha ndax ñoom dañ lay jombaloo dara hmm. ba nga jomb ko nag ah. ñu woon la li tax ñu jomb la ko ah. ndax sëñ bi ba muy yëkkati tur yàlla di ma ko jox ah. di ma noseel di ma noseel di ma noseel bu mu yàgg mu ne ma foo àggut ci yow la allah akbar waaye li ma yoon jox naa la ko ndeysaan la ilaha illallah kooku nag xamee boppam hmm. war naa jomba hmm. am leen yoon fii ci ci ci ci ci sanco yi may nekk ma nekkoon li ma wax ñoo ñu nekk fi ñu war xam nañ ko tey fekkoon ne tegu am fu am ma teg sam tànk hmm. kon mën naa ñaaw ndax xur woowu ma nekkoon. Ah. cent mille francs cinquante mille lu ne fekk na ma. Ah, ah, waaye lu mu fa mas a fekk. delloo naa ko borom ba borom xam ne man loolu taxu maa jóg. taxu laa bi suñu borom demee ba nar defar samay mbir. xamal ma ni ma lii du sa wàll. te am fa mu ko jaarale. ba mu fa jaaree ba ma dellusi fii ah. ñëpp xam nañ ne kuy waxal dëgg xam nga ni kii am am am na fu doon jël ay ay ah, ah. ni ko ni ko ni ko chef de quartier yi mbay boo léegi kon jotaay bi du am du am déedéet mukk jaate <laughs> ndax jotaay xam-xam ña ngi fi soxla ku dëggu mm-hmm. ña ngi fi soxla ku teg tànkam ci siraata mustaqim mm-hmm. nekk taal bi seexul am na ku ñuy wax soxna Wali Ngom dafa mos a ñëw sama kër gale ak si suba teel ne ma ah sëñ daam ma ne ko ah, ma dégg hmm. ay sëñ daam ma ne ko taxawal soxna si ah. ma ne ko bu ma ne hmm. nga koñ boobee ah. samp naa fa loo xam ne kurul suñu borom tabaaraka wa taala kurul sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la kii mënu koo sembi te bu ëllëgee danaa fa taxawal loo xam ne boo manee nee diw sàngam la wax na la nangam mën naa am insaan yi doomu aadama hmm. jàpp ma boo liggéey su ma fa sampee dara su fa ñëwee ma xoole ko kamay saaga ak kamay wax lu baax ñëpp. Ah. man def naa ay soppi. waaw ah. ndax loolu dina ñëw. macha allah. Mm-hmm. Euh, ku baax kii nga ubbiwaat nu rek xam naa ligne bi di 88 628 05. daaw tuga 88 628 19 05. ñu dalal fi Serigne Dame Sall xam naa nga may ah, tuuti asida rek incha allah rabbi. wa a'idni min kulli ma sta'adtu bika minhu fihi fiha bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله waaw bisimilah soxna Ndeye Diagne ñu ngi siyaar waaw soxna Ndeye ñu ngi siyaar waaw waa kay Sall Sall Ndiaye. waaw ñu ngi siyaar baax kay. ñang ñang Sall Ndiaye. ñang ñang ñang ñang. jaamal Sall. moom la ñang kenn maam Cheikh waaw. maa ngi rafetlu wax. alhamdulilah maa ngi rafetlu waxtaan wi. alhamdulilah ñu ngi tubaarkàlla alhamdulilah. kàddu tubaarkàlla. alhamdulilah ñu ngi tubaarkàlla. wax dëgg yàlla neex na loolu de Sall. alhamdulilah tubaarkàlla. maa ngi leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér rek. amiin ñu ngi amiin ñu ngi tubaarkàlla. yaa Oustaz Mbaye Ndiaye moomu. ndeysaan ndeysaan na yàlla yàgg seen ab taxawaay. amiin yaa rabbal aalamiin ak sëñ Touba. amiin tubaarkàlla. aari Sall. amiin tubaarkàlla tubaarkàlla. kontaan nañ lool ya Sall. alhamdulilah tubaarkàlla kontaan nañ lool. alhamdulilah alhamdulilah. Mbaye Ndiaye moom nag toujours maa ngi rafetlu waxtaanam moom. waaw ah, wér na wér na wér na. toujours maa ngi koy teewlu de. moom kay keroog yaa ko yaa ngi koy wax lu ma raw benn waxtu. <laughs> ndeysaan ndeysaan waaw maa ngi leen. ndeysaan ndeysaan <laughs> Assane Badiaye kooku soxna ah. ku la sopp la nag. ndeysaan boo xam ne sa émission yi ngay def. Ah, ndeysaan benn du ko ci raw. yàlla ko yàlla fay waaw maanaam maanaam maanaam mooy mooy mag yi waajuru. soxna soxna Fama Sène moom soxna Fama Sène ah. waaw. ndeysaan yàlla ko yàlla fay. barke Seydou Khadim alhamdulilah ñu ngi ko jaajëfal baax a baax a baax. 88 628 19 05 88 628 19 05 bàyyi daam mm. ñu gisaat ni tam ndax euh, yaakaar naa ni am na yu bëree bëri yoo xam ne duñ ko mën a leeral mm-hmm. waaye am na yu xam yoo xam ne bëgg nitam nga leer ne tuuti mm-hmm. ñu gis nitam fële ca mm-hmm. ndax mbuur saf jëmukaay la Dakar ak mbuur xam naa diggante daaw rafet tànk bëri fa ndax kër gi xaw naa équipé ci ay personnes ak nit ak ñi la soxla bari ba génn bi mënatu la yomb dëgg-dëgg waaye ñoom ñu la xam nan fële ca mbuur dañu faa gis nga def fa loo xam ni. bu ñu sañoon nga leeral ko fii ndax. ñi ñuy dégg. war nañ cee am ak leerlu. ba ñu xam kan mooy Serigne Dame Sall. muy hôtel boobu ñëw daal ci Mbour. te te am ñu dugg xalwa te am mm-hmm. jinne ci ñëw daa alfas na njëkk ci li ba pare salaamaaleykum. waaw mm-hmm. ah, ah, waaw génn bu ko defee mm-hmm. joo xam ne ku fa dugg xalwa rek mu dàq la ah, hôtel boobu ñu leen bëgg nga leer lu ca tuuti insha allah rabbi waaw sëñ Baye loolu moom dafa mel ni xanaa gën koo leeral mais am na lu ñu ci leeraloon daaw. Ah. waaye ñëpp dafa war a kii pour dafa war a gën lay dégg ci àdduna bi mën dégg. waaw ah. ci wane ne rek maanaam Cheikh Moustapha kenn la. Ah. mooy keroog bi nga xam ne hôtel boobu. Euh, yóbbu nañ ma fa. Hmm. biñ ma ne ma looy duggee xalwatu. Euh, bi ma nee cinq ndax ñoom xam nañ ne am nañ ay sëriñ ñu fa ñu fa dugal yoo xam ne. jël nañu engrais waaye ku tàmbali doo àggale. Hmm. keroog bi ba accès bi ma tëjoo. Hmm. sama sama ñaari du guddi hmm. ci biir ay ay ay nopp si jaboot ñooy ñooy wër néeg ay nopp si jaboot ñoo koy wër muy tukkute waaw ah. bi ma doxee diir bu gàtt hmm. ci laa génn hmm. fekk kaas bi ma bi ma doon defee xaloot dafa am benn croix boo xam ne am na génn guy goo moo ko tiim ci laa génn xool seen jinne ji ci kaw ah. xam ne bi ko séenee li ma xamal ne jinne la ah. mooy fi mu fi mu samp tànk yi fi fi bi nekk lu mu new néew néew war naa mat ah. onze mètres ah. wala dix mètres te xam naa ne day doomu aadama ah, mu yëgaat ko ci sama kar yu bopp ni sama kar yu bopp taxawee waaye fi ma fi ma fi ma nekkee def toog def samay lum samay limaay ci la sëñ Moustapha wax ak man ba mel nii dafa nekk ci sama gannaaw allah akbar bi ma nee daam dama ne gees ba jàpp la ko ci liñ bi salaamaaleykum ku baax waaw bisimilah sëñ ah, Dame man maa Madou Gare noo koy fay. ndeysaan tubaab kàlla bi la. man sama noo koy fay Madou Gare. waaw waaw bisimilah ma ngi lay dégg waxal ak ah, moom. bisimilah bisimilah fay bisimilah ma ngi lay dégg waxal ak moom waaw maa ngi lay dégg bisimilah bisimilah. bisimilah dama damay sant sëñ Dame moom rek. waaw ah, ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ndax sama rakk joo xam ne nii wax dëgg yàlla ba mu ba mu ba mu gënee dina ak léegi mosuma koo xam it wax dëgg yàlla def dox yëf yëf ndaw. ndeysaan ndeysaan tubaab kàlla sëñ Moustapha May nag yàlla daa dogoon mu wëlëree woon ak baayam moom. Mm, ndeysaan ndeysaan waaw wér na xam na ci lu bari. sëriñ bi baayam. waaw ah, xam na ci lu bari amul ndeysaan sëriñ bi Sall man ci tout tànk laa waaye fa la ma daan fekk. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal baax a baax xam na ci lu bari moom dafa nekk sëriñ bi bari waaw ndeysaan <laughs> léegi xam naa nga àggale sa diggante am am na jël kii ba pare salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum bisimilah bisimilah bisimilah déggante bi neexul ko baax xam naa ne ah. àggaleel nga xam ne sëñ bay ah. bi nga xam ne bi ma sëñ Moustapha ne daam damaa jàpp ne mi ngi ci biir ah. bi ma nee gees gisuma dara mu ne ma hmm. deel wax nangam ak nangam hmm. nga xam ne bi ma ko waxee ah. Ah, ci laa noppee gis gi nga xam ne ki nga xamante nii moom salaamaaleykum la yëkkati la salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam bismillah ku teel ko baax kooku ñu lay delloo siyaar bu baax sëriñ Mbaye Amady moo ñëwaat. ah sëriñ yow lay lay siyaar. ñu lay delloo siyaar lu bare bare. walaay la kiiwaale kiiwaale kiiwaale. xanaa di la wax rek nii. sëñ daam dañ ko yërëm. bis li fan ak ñett ci tey. Eh. ndeysaan ndeysaan. dalul dalul bëccëg. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. Eh, di dugg ci nag ba kañ ci cin li. ndeysaan ndeysaan. ah. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. xanaa kay nga dimbaluñ ci rek. walaay lay sant nga dimbaluñ ci rek de. walaay lay sant. jërëjëf jërëjëf maa tax sëriñ jërëjëf. Ah, jërëjëf sëriñ. waaw Oustaz xam naa rek. Mm. Euh, comme bu ko defee. ah àggal ñu àggal tomb rek. Ah, ah. bi ma sëñ Moustapha ne daam. dama ne gees jàppale mi ngi ci neen. Mm. mu ne ma waxal nangam ak nangam. Mm. nga xam ne bi ma ko waxee. gisatuma dara. ki nga xamante ni oh, séeréer bi nga xam ne moo doon garder hôtel bi. keroog bi mu déggee ne tëju naa fi dafa dem ci ñi ma boole ci ma yoo xam ah. ne neen ki neen sëriñ moom day faatu moom day dee ah. moom moom moom du génn moom du génnaat ndax ah. fi am na junne yoo xam ne ku fi tëju xaroot ñetti fan boo ko defee te génn moom faatu keroog bi ma génnee bi mu déggee ne génn naa dafa ñëw jox ma loxo téye na sama loxo bi lu war a ma dix minutes di ko yëngal moom moom waa ji moom sëriñ bi xalo bi jeexee waaw bi xalo bi jeex ma ne ko la mu ne ma loo gis ma ne ko gisuma dara mu ne ma gis nga dara bi ma sonn nag ci laa ko dogal ne ko gis naa dara de mu ne ma yow ko amul sëriñ ah. la. <laughs> mu ne mu ba nga duggee fii dama noonu da ngay faatu. da ngay faatu ci loolu. Hmm. ci ngay wane maanaam hmm. wéeruwaay. Ah, ah, am solo wéeruwaay. maanaam ci nga xamee. kon daal bu la déggee. Hmm. nit ki lu muy jëfandikoo rek war na caa am kilifa goo xam ne. moo koy mooy ndër laayam. nga xam ne bu gëstoo gis ko ci ginnaawam. benn bi ci des it. nii nga gis nga xam ne da ngay gis nit koo day jël wiir da ba mu yàgg rek. mu jékki-jékki rek xëy ah, dof dof ah, wala mu jékki rek xëy nga gis ko mu muuru ah, dugaat ci beneen eh, beneen yoon waaw di jéem a woote di jéem fii ci Dakar def naa fa benn xalootu boo xam ne ku ñuy wax soxna Fan Njaay nekk France moom laa ko defal kër goo xam ne daf ko liggéey muy kër gu bees nga xam ne ma damaa woon ne nga xam ne maa fa jëkk tëju def naa fa juróom-ñeent fan yoo xam ne hmm. fi ma toog di di di ñaan hmm. dem naa maanaam kenn kenn suñ ko wax ah. maanaam dem naa bañ defal ma masaafa ah. nga xam ne ah. mm. fi ma toog maa ngi toog di jàkkaarlu kaaba bi allah akbar fi ma toog maa ngi toog di di di dégg nodd gi ñu nodd ci kaaba bi ci foofu mm. dem naa ba seytaane mm. iblis gànn si ma ndax dem naa ba yëg sama bopp ba bi may ñaan maam damay taal sama loxo mu yàgg fu sama xet dem ma xet foofu mujj ma jël sama loxo teg ko sama dënn ñaan sama bopp <laughs> bi ma ko defee la ma sëñ Moustapha feeñu ah. ndeysaan allahu akbar ne ma bul fàtte saaba yi nga xam ne ñoo am na yonent bi ah. nga ne képp ku jariñu ci diine ah. ñoo tax ñoo ma sëñ Moustapha waxee loolu rek ma daal xam junj ma junj ma daal di continuer ne hmm. bàyyi li ma doon si laa yëg ne dellu si waat naa ci néeg bi ba bi allahu hmm. woon te sëñ bi delloo si ma mooy ñu nga xam ne dañuy dañuy tëju génn muuru. Ah. di di di andi lu bees. Ah, waaw waaw ah, waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw maanaam man sant ko dafa dafa yell ci man. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. dafa maa xam ne. Uh-huh. man su ma sama bopp def koy uh-huh. sàmm. Uh-huh. ma jot ak a. Uh, du ñun pour ñun ñoo bëgg a xam ndax ñun yaakaar naa xam nañ. Uh, yaakaar naa ni waxtaan nañ ba ci yu waaye uh, da ngaa jot pour nit ñi xam kan mooy Serigne Dame Sall. te fii lañu ko mën a xamlee. ndax àdduna bi ñu déglu. amul fenn ci àdduna bi fu mu wax nag. ci àddina bi ndeysaan tubaarkal tubaarkal <laughs> muy Europe muy États-Unis muy fépp laa fu mu toll ngi déglu. kon loolu sant yàlla la rawatina nag Sénégal moom. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah kon am na ci yoo xam dafa war a leer. Mhm. te bu li tax ñu laajee lu mel noonu. Mhm. ndax dañ la yéwee ci kanam ndax coono beeg yooyu. Mhm. dañuy tënk rek fu mu waaye li tax ñu laaj lu mel noonu dañoo gis dafa am ay ndaw yu bari yoo xam dañoo sóobu. ci li ñuy wax lasraar. te xamuñu dëgg dëgg lasraar. mbir ba nañ koy sóobu am kilifa ca loola. nga sóobu ca boo ci sóobu rek yàlla mën na caa defal eh, li nga bëgg ndax moom mii daa wér ci ku mat a wér sëñ Moustapha may mun a doomi sëñ Tuubaa yi ci am ñoo koy tàllal loxo di ko ñaanal mhm. te ay nijaayam lan mhm, mhm, waaye nag am na cër bu ko suñu borom joxal xam ñoom nangu ko kon yow da ngaa fésal sa teel bi ci moom mu defal laatam loo xam lu ma gën a neex ci tur ma defal bari waa na ñoo gis ay oto di gaari seen i kër mm-hmm. te itam turu ji ne leen wér na gëstu na ci lu bari bari mm-hmm. mm-hmm. ndax ilmu kullu sayn afdal min lépp moo gën réere ko moo tax daanaka ñun lépp lañ gëstu lépp lépp amul lu ñu gëstuwul te loolu bi ñu gisee xam nañ ni bari waa na ñu ni raamal fii maam ñoo xam ñu leen di daal ay oto di fa dem seen kër fees dell mhm. vingt quatre kër day fees mhm. te ay turu junne lañ lay wet te turu junne yooyu moom Baye Dame noonu la ko xamee ba man ko lool ba une semaine bu ko tëjoon kër bu ko neexoon ay millions fekk fa yoo xam ci junne la ko liggéey da koo jàng ne ko ñëpp jàng xam ko ne ko ñëpp xamee waaye sëriñam sëñ Moussa Maymuna mhm. moo ko ni daam garab bi mu koy jàng xam booba ay atam tóolul fii sax moo ko ni daam loolu bu ko jëfandikoo mhm. te boobu moo ko nëbbul ba ko jàng ba ñëw ni ko jàng naa ko xëy na waxtaan moo ko doon laaj waaye leeral ma ci lu bare bare bare waaw mhm. kon nañu xam ni jëfandikoo ay turu jinne lekkatu tànk wala nga xëy xëy rek di def say lasraar yoo xam ne tegoo ko ci xam-xam bu wér céenga man na laa andil ak gàllankoor sëriñ Daam Sall mii nag waxuñu ci moom ngir li ko tagg waxuñu ci moom ngir bëgg dara jaam mais nag dañuy wax ci moom lu ñu gis ci moom dañu koo gis ci moom wa ma sahidna illa bi ma allimna dañoo xam ci moom loo xam lu ñu wér cëng la ni ko sunu borom jox ijaaba la waaw ay mbàkke mbàkke ak yi busa busa day sukk ci kanamam bu di dugal dugal xalwatu lu leer naññ te man am naa ci lu wér kon nañu mbir yi mbokk mbir yi du kuy tëdd ka nelaw rek koy am de jaayante ndax li tax may wax lii dañoo toll ci jeexantalu émission bi mhm. incha allah bis bi rek lay wax mhm. ñu tëj émission bi mhm. moo tax may leeral lu bëree bëri ndax ku mel nii fu mu nekk di nga gis koo xam ni du xam lu mu demee di ko xeex ak di ko jéem a dir mbagg di jéem a wane ni nii nga mel ak nii nga mel te duñu dara duñu tus di yàlla bu taale ab taa ab la ko képp ku ko jéem a fay da ngay sonn rek bu yaboo jël matt jéem caa sànni taal ba gën a jolli te it benn waykat dafa wax ni li gën a doonu ndox mooy jéem a suul ker hmm. da nga koy yokk xadr muy daraja ak kartan ker ku koy jéem a suul da nga koy yokk daraja ak kartan hmm. kon sëriñ daam sàll làmp bu yàlla taal la ko neex ak ko mu naqari loolu moom lu ko ñëpp xam waaw ndax itam jamono moo doy waar te am na ñoo xam ne tey fu ñu nekk ci àdduna hmm. mën nanoo gis nit rek du ñu xam la mu jànkoonte ak coono ma am ak ndigal la mu am ci la muy liggéey te ñu dañ cee am lu wér cëng ci cëng cëng ni lii muy liggéey da cee am ndigalal te itam li mu jëfandikoo tur yàlla la tur yàlla wu leer nañ ñi la woo xam ni lëbbul dara donte nag loolu ñu wax fii waaye ñun xam nañ ci daal waaw tur yàlla la waaw tur yàlla jëfandikoo ba yàlla may ko lii mu may ci ijaaba gi waaw te itam li fu mu jaar ba am lii mu am mooy ñi ma ak xalwatoom xam nga nit ñi da wax xalwat ñu tiit ma leen déedéet mm-hmm, mm-hmm. boo déggee kun daa ñi ma xalwat mooy ku ñi ma wéetaay waaw xalwatoom mooy wéet yàlla nekk sa borom ba la nga doon bëgg nga am ko mm-hmm, dem ba ñaan sëñ Moustapha may mun a gàtt aw a moom mii àggan na ci di gis loo xam ni ci turu yàlla woowu dem bay ñaan sëñ Moustapha may mun a mu jóge fi ngir bañ a def bàkkaar àgg na foofu te lii ah ah tom boobu sax sëñ bi dana jar tuuti ñu maanaam li loolu nga wax yaakaar naa soxna noo koy faal moom mu doon woote di sama soxna am na lu bari lu ci xam ndax bi bi yàlla dogalee loolu di digg ci moom daa fekk booba man ko doog a takk ci ndakaaru ci ci seenu koñ foofu laa toog tëju di jaamu yàlla ba laaj naa Seex Ahmadul Xadim ah. Abdullahi wa Xadim ne ko damaa bëgg nga leeral ma ah. su fekkee ne yoon yu ma jaar yoonu siraatul mustaqima te ah. wér na nga leeral ma ko mu leer nañ ci mante te ma ko sikki sàkk Oustaz mbay fi ma toog wax ko di di sëpp sama téere yi ci la leer goo xam ne leer gu kaleer goo xam ne bokkut xam nga lamp bi dafa dafa leer leer goo xam ne ku da nga xam ne euh, leer lamp la waaye dafa leer nii bi dafa leer leer gu kaleer goo xam ne dafa maase dafa maase. Ah. ma geestu jàpp ne ci bun ci ginnaaw néeg bi dañ ko ëppi. Ah. ma geestu gis néeg bi ëppee. Ah. ma xoolaat sama kanam. du du gént du nelaw. gis ku tedd ki taxaw ci sama kanam bi mu taxawee sama kanam ma di ko leerloo fi ma koy leerloo gis fi ma koy leerloo gis maam Cheikh Rafal teg ñaari ta ñaari tànk yi ci mbagg yi du dugg ci moom étape par étape foofu nag. man felaa daal di tàggoo sama sago ci laa ci ci la ma aal ma daal di ne daal daan tëdd mm. bi ma tëddee ci sama nopp bi maa ngi dégg jigéeni jigéeni óorul ay nii laa leen tudde ñoom la mm. ñi dima way ñi naan waliyee jut mm. wali lës yi daxaani li nas ñi ci des nekk ci benn ci benn nopp bi ah. naan li nas mi bil am ni warit waa ni allahu akbar te way woowu bi koy way ah. dafa ànd ak genn xeet parfum goo xam ne gëtt la ah. maanaam man mënutuma ko supporter. ci guddi gi. ci laa takki sama ñaari tànk. takk sama ñaari baaraam yi daal di ñaan suñu borom ne ko maa ngi lay ñaan suñu yeewoon nañ fekk ma faatu. ndax li ma doon ñaan sëñ Tuubaa war na ma ko te bëggatuma fay nekk di yàqule sama soxna soo soxna koy faal bi mu xëyee bi mu ne tegg tànkam ci néeg bi bëgg a bal néeg bi hmm. dama ko ne néeg bi xaaj naa ko ci digg bi ñaari xaaj xaaj bii ma fare woo bul ko bale mm. xaaj bee mm. mën nga koy bale waaye xaaj ba fi tegi sama tànk rek mm. mooy rey naa la bu yàgg mu ne kéddi jooy am na moom weer ci néeg bi yoo xam ne maanaam amul lenn lu xam ci man ah. kaasu café bu ñu ma ko joxee beneen laa koy ñoo ñëw ànd ak man di way saa bu saa saa bu ma toogee ci bitaay rek ah. ñu dem waaye bu ma ñu ñëw ñëw ah. bi ma demee ba xam ne nag man mënu ma fee jóge ci laa dem Sëñ Moustapha bi ma demee daal na ko mën a mbàkkee dama dama doon ñaan suñu borom jëlee ma fi mm. loo mm. ne ko ndax dama fee bañ a toog di yàqule mm. te am ñu mu àndal ñoo xam ne bëgg toog di yàqule sëñ Moustapha ne man ndax yaa fi indi sa bopp di fi jël sa bopp daal la ma yow li nga war a liggéey sëñ Tuubaa liggéey goo ci dara ah. daal la ma jege si ma jege si mu yëkkati toxo loxoom teg ko sama bopp ah. laaj ma xibaar bi ma wax ko ko ah. ne ko man daal damaa gis sëñ Tuubaa dama ko gis tey bëgg revient sëñ Moussa ne ne beneen boobu dong nga ko mos a gisee ah. ma ne ko ma ne ko Mbacke yow mu ne man mii rek fu ma ko bëggee gis gis ko nag ah, ndeysaan allah akbar daal li ma ah, ma ko ko bi bi ma ko sama loxo teggee loxo loxo bi sama bopp laa gëjee boobu ba nii ma lay waxee laa leen a akbar kon nun fi du sëñ daam sëñ Moustapha la fi nekk bu kenn ne sëñ daam la ah. sëñ Moustapha la ah. dafa dana am loo xam ne nag xëy na fii la nga ko mën a leeral mm, mm. waaye du lu kenn leeral ñëpp mm, man koñ bee moo fa ñëw ñëw mu foon ay kër sëñ Moustapha moo ma defal branchement ma xam ne su ma demoon kër Moussa wala mbajaay leen fa samay bokk lii su ma ko fa bëggee doxal duñ ma bàyyi ma doxal ko fa naa dem ci koñ boo xam ne kenn xamu fa mooy ñëw ñu jàppe ma ab doxandeem jàppe ma koo xam ne ca àll ba la jóge rek ñëw làqatu fa bala ñu ma faa fekk bay xam ci lu ma nekk message ba bëggoon jàll alhamdulilah yaakaar naa nag message boobu am na lu ci jàll jërëjëf Bakhri Diallo euh, leeral gi am na solo ndax loolu mënu woon a ñàkk ñu leeral ko baax a baax a baax a baax kon leen di jaajëfal rek euh, di am contentement baax a baax a baax ci mbokki auditeurs ak auditrices yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel rajo Baol Média FM 97 point 1 tey jii nag yaakaar naa ni jataay bi ñu àndal sëñ Dame Sall euh, ak itam mbokk mu baax mi nga xam ni moo ko gunge jataay bi muy Serigne Backe Dieng dëkk fa la ci Touba Firdawsi am na ko ne kii bi salaamaaleykum wa rahmatulah bi kalulu liman yunilu xayra sarai asabtaxuyi asabtaxayi kamal tarai kalkumbarai xayra alami fika xilami Baol Médias FM jërëjëf euh, mbokk ba xam nekk ci technique bi macha allah tabarakallah ci xasida yi neex di jaajëfal baax a baax a baax sëriñ Dame Sall ci jotaay bi yaakaar naa ni sëriñ Dame adduna bi kontaan nan Sénégal kontaan na yoonu murit kontaan nan waaye njabootu borom daarul mooti kontaan nan waaye itam njabootu ko Cheikh Moustapha mooy mun a kontaan nan bi Cheikh Moustapha mooy mun a kontaan nan sëriñ Tuubaa noonu la demee waaye itam lii woon a ñàkk ndax itam da koo xam ni la ma la waxoon barki démb dama ne Cheikh Moussa euh, dama ne sëñ Dame Sall nga ma ne Mbàkke ma leen dafa jës sëkk àddina bi xam la waroo nekk kuy tëju waroo nag salaamaaleykum wa rahmatulah. du ko baax ko tedd kooku. waaw soxna Ndeye Fama waaw macha allah kay. man xam naa ñu waa Goudiri bi moom kontaan. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. waaw ñu waxtaan am day dem. yaakaar naa ne kontaan nañ ci walaay ndeysaan walaay ndeysaan la war a mën a demee lépp li a xam rek yaakaar naa xam nga ci lu bëri alhamdulilah alhamdulilah ko ñaanal suñu borom yàggal ko ci suñu kontaan na lool ci yow yooyu tam amin amin amin amin amin amin amin amin kontaan nañ lool de amin jërëjëf macha allah jërëjëf soxna Ndeye Fama Signal duggal a duggal ñu ngi ko jaajëfal lu baax a baax moom fidèle auditrice la kuy bàyyi xel émission yi daw ci rajo bi la bokk ci Fans Club Baol Médias macha kon rek euh, comme noonu li ko waxee rek dama ko ni dafa mel ni am na ko rek ci ligne bi nañ ko jël salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam a rahmatulah. waaw ku baax ku teel kooku. sëñ a Thioye. sëñ Cheikh Thioye ak a baax waa ji. ñu ngi sant sëñ Tuubaa kay. ah yow am na solo de. <laughs> wallaahi ndeysaan tey dama daal <laughs> wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan général ku baax la ndeysaan sëñ Daam Sall waaw bu ñàkk caaxaan la wallaay ndeysaan borom baax la de macha allah sama xarit la sama wëlër la mu ngi dëkk fële ma ngi nekk fële ca buntu kër sëñ Tuubaa gi foofu lay jaayee xaal waaye ku bàyyi xel émission yi la ndeysaan moom itam yàlla ko yàlla fay sëñ Seex Coy euh, bu ko defee rek euh, ma ne ko sëñ daam mu naa ma ne ko yow nekkoo fu mu toll nii ku war a nëbb ku war a feeñ salaamaaleykum wa rahmatulah ah salaamaaleykum ku baax kooku waaw. bisimilah. waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. soxna Fama Sène. ah waaw dégg naa. maa ngi siyaar bu baax. soxna Fama. boobu ba tey maa ngi bëgg a dugg de. ndeysaan macha allah yow de waroo dugg muy te moom da ngaa baax lool. wóor na yàlla boobu ba tey maa ngi bëgg a dugg muy te. siyaaru baax di siyaare sang teet boobu. maa ngi lay déglu maa ngi lay déglu. waxal ak moom di ko ñaanal gudd ak wér gi yaram barke Sëñ Tuubaa. amiin waay. ak waa koñ bi ñëpp. amiin amiin amiin. amiin seen amiin seen. ñoom day digal ak ñoom tan nogay fay ak nogay faal ak. ñëpp ñëpp rek daal ñëpp. daal. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ci barke Moustapha May. Ah, ah, bis daal yàlla na ko suñu borom defal. amiin yaa rabbal aalamiin barke Cheikh Moustapha. amiin yaa rabbal aalamiin. ñu ngi koy siyaar bu baax. Ah, jërëjëf seen jërëjëf seen waaw soxna Fama nuyul ñu nuyul ñu jaww yëpp. waaw ah, ndeysaan ah, Oustaz Mbaye soxna Fama moomu. waaw ah, moo nekk ci kër yaakaar naa xam nga ko baax a baax a baax. wax dëgg yàlla rëcc wun maanaam. salaamaaleykum bisimilah. sëñ bi ñu ngi ziar. yàlla yàlla wax ci waa. ñaanal jàmm. ñaanal njaboot gi yëpp. di ñaan bés boobu ngay waajal. waaw bàyyi Cheikh Gueye Ridial. lépp teewoo rek. ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ba ñaan ko ci ba yéene ko ci. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. yàlla doon téeñu la nga am. amiin yaa rabbal alamin amiin bokk ñëpp ak biir yëpp rek. te na yàlla na sax ci sa sa ah. meen. amiin yaa rabbal alamin. ak keroog buftu buy wal. amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin. jërëjëf maa Sare amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin ñoo bokk bëgg baal ndeysaan jërëjëf Baye Cheikh Gaye Ridial ñoo ngi koy siyaar baax ci kër gi la liggéey Baye Daam ay émission ko macha allah yi ku baax yàlla baaxal ndeysaan ndeysaan ko jaajëfal baax a baax baax a a baax dégg nga ñaan yu am solo yi mu la ñaanal ndeysaan ndeysaan salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah dégg nga bi neexul mbokk mi na def ni dafa rek 88 619 5 xam naa mbokk yi moom ñu ngi ñu ngi xam naa ne. salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah. waaw Baye Ba. waaw ñooy seere na yéen ko kan la. man ñang la ba. ah soxna Wali ñang ñang tubaarkalla. kontaan nañ lool kontaan nañ. ah alhamdulilah ñang alhamdulilah ñang tubaarkalla tubaarkalla. Hmm. ñu ngi koy jaajëfal baax a baax a baax a baax. ndeysaan ndeysaan macha allah fa tabarakallah lii de wane rek ni. ñoom ah. ñang ñuy bàyyi xel. waaw ah, ndeysaan ndeysaan te ñu ngi lay déglu ah. salaamaaleykum. salaamaaleykum ziar bu baax a baax. waaw sëñ Pape ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan na ñëpp ñaanal bu baax a baax. a na ci ñëpp fas la ma ko waxee ne mën ci fas bu baax a baax. Ah, nañ ci fas. waaw wér na wér na waaw. ñoom ñëpp nañ ci fas. na na nga ko wuyu ma sëñ Pape Sall. Hmm. Mbacke Ball. fas gi nag na nga ci boolaa rajo Baol Média bii de. Eh, moom. rajo bi daal kuy dégg rek war nga koo fasal. waaw rajo bi moom daa war a àgg fu kawe njort moom itam. Hmm. waaw na na na na mel ni jumaa yi Tuubaa na wër àdduna bi. amiin amiin moom attan na lépp nag ñëpp ba. amiin amiin waaw waaw jërëjëf sëñ Pape jërëjëf sëñ Pape waaw moom de am na loolu nga wax de am nañ ci rafet njort bu baax de ndax de ah. euh, euh, am na loo xam ne kenn du ko wax. Ah. waaye ñun de yàlla defal nañu tawfeex yi. Ah. Euh, nan yëkkati liñ ba pare salaamaaleykum. Mm-hmm, mm-hmm. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw ku baax kooku. dellusi waat di ñaan jàmm di ko ñaan adduna bépp <laughs> rajo boobu nag amul ko kax ko taxaw ne bala am lu ko neex dafa fay li ma koy dénk nag. Mhm. moom ca man dara. est ce que est ce que. waaw def ko macha allah waaw Baye Cheikh kay dafa mel ni loolu wax de. ah ah Oustaz ah. mm, Mbaye Ndiaye mi am na lu mu ñu jox waaye de. na ah. seen xel dal de. Ah, alhamdulilah rajo bi dama am télé dana fi am de. alhamdulilah waaw tey tey tey loolu moom xañ na yéen de waaye Oustaz Mbaye Ndiaye boo ko xam dina ko xam. <laughs> alhamdulilah walaay de waaw dina ko xam de. walaay de am na lu ñu ci xam de. walaay de ndax man du ma ànd ak kuy daanu. alhamdulilah man ñi ñi ma xam ñëpp. xam nañ ne man ku dëgër bopp laa ci bu ma nee nangam dana am ah, loolu am na lu ci xam ñun <laughs> loolu moom ñun moom am na lu ci xam macha allah maanaam man bu ma leen nangam dana am ah, ah. ñëpp xam ne man ku dëgër bopp laa ci lool alhamdulilah yàlla baax na bu ko waxee dana jërëjëf macha allah jërëjëf <laughs> jërëjëf xam naan rek ndeysaan yére ji fa tabarakallah te xam naa ni gën nanoo am contentement waaye gën a am yaakaar baax a baax a baax ci Baol Médias jëm ca kanam mm-hmm. ndax kilifa yu baax yi xam ni ñu ngi teg seen tànk ci kaw Baol jaa ak seen bët ak seen nopp lu bool média mën a jëme ci kanam rek ña ñoo xam ña ci saayir waaye am ñoo xam ña ngi ciy dox ci baatin yow mii ma lay invité fii ci rajo bi dox nga ci bool média ci baatin ba tàyyi mm-hmm. sama sax ko moom waaye sama diggante man ak yow ah, dox nga ci bool média ay jéego yoo xam ni wallaahi asim du lu mënoo leeral fii waaw mm-hmm. alaa kulli xaalin daal ku ñu war a xam nga nekkatoo ku war a ndax da ngaa liggéeyal Cheikh Moustapha Maymouna ba am ngërëmam te da ngaa war sa njariñ Cheikh Moustapha Maymouna moo la ko waxan moo leen da nga fee a nekk xettali jaami liggéey Sëñ Tuubaa ci loolu kon ëllëg ci loolu di nga am daani suñu borom kon nag na nga xettali jaam yi dañu laa war a xam insha allahu rabbi maa ngi ñaan yàlla ci barke émission bii ñu def tey mm-hmm. nga jóge fi ba faw faw faw faw nekk ku ñu dégg ci àddina bi ci barke Seexul Xadim alhamdulilah yàlla na ko yàlla def amin ya rabbal nga nekk ku ñu dégg nekk ku ñu xam amin ba jot ci yow sax jafe na ya rabbal amin ya rabbal ah, ah, ah. yàlla mën na ko yàlla ko def amin ya rabbal dana am xam naa itam mm-hmm. insha allah rabbi bu connecté ba wax bis bi mi def bu soobee kii maye dañ leen jox numéro bu ñu joxee numéro bi ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ñu ngi ñaan li ko dalee tey ba suba moom ngir jëmmi Sëñ Tuubaa bu ko ci kenn woo ku ku jëm ci wàll woowu bu ko ci woo ndax ganam gi nga xam moo koy siyaare te muy sëñ Mbàkke moom sëñ Moustapha dëgg yàlla tey jii ba suba moom mm-hmm. looloo ko ñor mm-hmm. lu paase suba nag ginnaaw suba mu dallu ginnaawaat suba képp ko soxla mën nga koo woo ngir waxtaan ci yitte nga am ci moom bu dee lu dëgg lu baax lu jëm ci yàlla ak yonent bi luy defar mbokk incha allah nee ci ñaanal bu dee lu ñaaw lu bopp liggéey ci moom lañ ko sos muy suñu jëwriñ moom itam muy suñu wasila waaye nag ku xel la koo xam ne xam na ne ñun ku taxaw da nga dox hmm. ndax mos naa ko laaj laaj boo xam ne moom xam naa sax mos naa ko laaj ñu ànd benn yoon ma ne ko sëñ bi hmm. fexe yëngu loo ko ci laaj ah. ne ko nu ngeen def ak ñoom hmm. mu ne ma man day ñaar yoon yi nga xam ne dañ koo ñëw daaru mu si ah. damaa dem araf teg sama portable ah. ndax ñoom de ku leen ñu yàqal la loo xam ne duñ la ko mën defaral muy politicien yi muy politicien yi te boob moo koy laaj hmm. su ma waxoon leneen it hmm. du ma neex waaye nag dinaa ko téye ngir sëñ Moustapha hmm. waaye nag alhamdulilah ba ma waxee loolu ci fi mu toll sëñ Mbàkke moom tey boo demoon Arafa tey fekk jumaa jam fa naal nga xam ne bi nag moom moo may gane si waaye buy ñëw nag mbooleem njabootu sëñ Moustapha gi oyof képp day ànd ñoom alhamdulilah waaye du ca yem dina ñëwaat fii Touba mbooleem njabootu mbusee mbusoo bi nga xam ne ay ay ay néegum ndeyam foofu la ah, maanaam ñoom it dañ di indaale man mii mbooleem sama wëlër yi ma am ñëpp ci bis boobu ñu sant Mbàkke ñu sant Faal dañuy ñëw ndax bis boobu man mooy sama bis bis laa am lay des bis bi nag fas naa ci képp koo xam ne teg nga fas tànk hmm. yow yaa xam li nga bëgg waaye noo ngi ñaan bu dee lu baax la noo ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala defal la ko alhamdulilah amiin am nañ ci rafet amiin amiin amiin fas nañ ci fépp fu julli nekk ci kaw suuf waaw suba ci alxames ji incha allah ah, bu ñu xëyee hmm, incha allah rabbi sëñ Mbàkke fa lay ndekkee si ah, bu ko yàlla dogalee ah, jàng alxuraan fu ñu demee ba une heure ñu berne berne hmm, continuer ci njàng xasida mi ndax njàngum alxuraan mi ak njàng xasida mi mën naa ne ñooy lëkkaloo ndax jàngkat alxuraan yi moom bu xëyee suba teel a ñuy tàmbali ña nga ca njàng bi sax daa mel ni xam naa lu njàngam bi suba bi waaye moom ne waaw waaw xanaa njàng bi waaye moom tamasoon na ndax ay kaamil ko teew am na ñoo xam ne wàcce nañ ko ci ah, ah. seen ah, na ñoo xam ne def nañ ci ay yey suñ eh, la ko yàgg ah masha ne bis boobu moom la suñ daan di watte moom mooy bisam ndax ki nga xam ne mooy sama làq naa ngërëmu ah. te bis boobu suñ ko ko defalee ah. ku fa ah. mu ma defal su ma la ko yéenee dina ñëw ci yow su ma la yàlla moo mel noonu kenn du ko jëfal eh, eh, di dama ko neen xam naa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mm. euh, fu ñuy tàmbalee daal jaaxal nañu waaye dañuy di ñaan yàlla suñu kàddu fekk ko ci jàmm te doolil ko ci taw tawféex ju gën a kawe njortu ba li mu yéene ci yoonu murit mu def ci lu kawe njortam amiin dañu fekkee lépp ci barke Cheikhul Khadim amiin amiin xam naa ñi xam bàcc ci mm. kàddu mm. tey jii dana leen jaaxal ndax tey damaa jaaxle damaa mm. muuma ndax sëñ daam damaa mënut a wax ci moom daanaka ndax dafa am fu ma teg euh, li ma mën a seere daal te man koo gëm mooy li tàmbalee guddik tey gii dama ko waxee noonu rek ci sama yëg-yëg ak li weesu bés bi ah. taw feex la hmm. tey suñu borom nërte dimbali doo ko loolu moom mën naa koo garanté ndax suñu tànnal la hmm, hmm, wala ah, ah. gi ma ci am mooy ki nga xam ne mooy sama waajur man damaa làq ngërëmam te muy nekk koo xamante nii ku doon dund alxuraan la suñ daam ma lay seereel ne tey jii mbubb mii ma sol gëj naa koo sol te ci moom laa ko doon mbubb mi ma sol gëj naa ko sol te sama wuy jur laa ko doon ne bi mu fi bàyyi bi may jël mbubb mi ak àlluwa jum jàngee alxuraan te yoon wii waajulu ma ko mm. ndax sëñ daam ndax ma ne nañ dem mm. loolu nag ak doy loola yow ku la xam-xam ci lu baax sëñ daam ndax ma doy lool ne man nañ dem uh-huh. kon loolu daf maa tëb uh-huh. di ñaan daal képp ku xam Mbàcc na nga xam ne suba am na bés ah. bés boo xam ne bésam la hmm. te sëñ daam moo ma jagleel ci bés bi hmm. sëñ Moustapha May man mun maa wax ci moom ndax ma hmm. waxee ci moom waane waaye sëñ daam mii képp ku ko xam xam ne ka mu wéeru am na solo fonkal li nga wax léegi nag li ma la ciy seereel ne sëñ daam dañ koo war a xam <laughs> ah, xañ na lu nekk am na bés waaye danañ ko xam ah, tey lay commencé sëñ daam dafa dafa nekk koo xam ne ni ma la ko mën a misaalee gannaaw gee yaa yéene ji moo kawe mm. li mu mëbët booy seen muy sol ay garambu bam di woote mm. te pas-pasam yëbbul foofu mm, yéene ji it yëbbul foofu ah, yéene ji ah. moo bari bari waaye mm, mm. Mm. ku ko gis muy ñoddiku di xatal ak di ku ñoddiku rek laa la ah, ah. sol li nga sol mu ëpp la ah, da ngay wogosu sëñ daam nag lim sol dafa ëpp day wogosu bokkut ak ñii ñoddiku di xëccu ñooñu moom li sol jotul ku sol li nga sol jotul footool da koy xëcc pour bëgg mu jot waaye kii lim sol loolu nag ki ko defal mooy Serigne Moustapha May di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu dolli ay leeram yokk ay maqaamam te dara yi maqaama yi gën a kawe ci barke Cheikhul Khadim sëñ Oustaz Mbaye Ndiaye yow dañ laa bàyyi xel <laughs> it képp koo xam ne am nag yëg-yëg dara dana bàyyi xel dama lay bëgg a xamal ne képp koo xam ne amut ak yow yëg-yëg mm. eh, bàyyiwul a xel mm. man maa waat Cheikhul Khadim amul yëg-yëg man maa garanté loolu ndax eh, li nga xam ne moom ngay doxee ci rajo bi ñun dañuy bàyyi rajo xel ba ba ñuy ne dañuy daanaka dañuy guddi tëdd dañ lay bàyyi xel saa bu waaye li ngay wax pas-pas la dama leen bëgg a xamal képp kuy dégg rajo yi mm. ah, pas-pas ci sëñ Tuubaa ah, ah. ajul ci sant <laughs> ndax Serigne Touba kon maanaam ci misaal kon fañ ko teg day doodu yéeg ah, ah, ah. waaye pas-pas ci Serigne Touba ci sant yow daal na la Serigne Touba ñor nga jóg laaj tànku Serigne Touba fu mu aw nga tegu fa sa tànk ak sant nag ndax man mii jëng doo nga laa sant waaye barke Cheikhul Khadim damay yëg ci Serigne Touba loo xam ne euh, da dafay daf may yëg moo tax fi mu toll nii ma toll nii ci barke mooy man lu dul baaxoorum jërëjëf jërëjëf baax rek laa war ndax baax ñi ñoo ma jàpp kon ku baax ñu baax nag buñ la jàppee ah. boo baaxul yow moom naroo baax kon sëñ Ousmane ah. man man naa def émission bi donc am naa ci émission te loo xam ne bu ma ci ndoxee day kii moo tax li ñëw fii ci émission bi li toog te woote wuñ moo ko ëpp loolu moom mën naa ko wax kitaabu moom te kër ga it fañ lañ fa bàyyi kon tey du bisu nelaw suba du bisu nelaw nañ liggéeyal Serigne Touba jariñu Serigne Touba ci barke Seexul Xadim ñoo ngi nuyu nag maa koy tudd bu baax a baax sama Cheikh Mouhamadul Fadal di sama yaakaar tey ak su ëllëgee. moom kan moom kan. moom Serigne moo sëñ sëñ Omar Mbacke mooy mooy mooy ah, wéyjuram ah, ah. mu waa Mbacke xewar la mi ngi dëkk foofu ci Poulaye di sama moom daal mooy sama wéyjur mooy sama lépp wa rahmatullahi taala wa barakaatu yal nañu yàlla def jàmm ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf kon xam naa rek ñu pas-pas lañu ci doxe pas-pas lañ ci yàlla sottal lañ ci doon ndox mu antu pas-pas la lépp sottee ba moom mu teew te ak teew moo pas la man dem naa sax ba mujj nii xam naa ni émission bi góobu mu am tey ndax xam ne am koo xam ne tey fukki fan ak nangam a ngi nii daanaka mën nga ni tuugul tuugul xaar nelaw nga xam ni fu mu li nekk ci moom ci coono kenn kenn kenn lu mënu ko wax waaye nag ñu fexee rek émission bi am ndax itam émission mënta ñàkk ndax ci màggal gi la ci gàmmu gi la itam li ci ëpp solo la te lii incha allah li ma wax ni da nga ci xam dara incha allah rabbi ci li ëpp solo gi lay doon koy seereel kilifa kër gi mu xam ni ku baax nga koo xam ni kuy taxaw kër nga saahiroo baat man doonte moom xamula waaw doonte moom xamula waaw waaw xaalin li ma bëgg a wax daal mooy fu mu nii boo ko gisee ma nga taxawal daara moom sëñ Dame Sall mii ca daara joo xam ni dafa jëlub jàngalekat da ko fay te faywul doo ngay dara xam nga lu ne ngoog yëkkati fa néegub yàlla pas-pas a ngoog mbokk yi taalibe du soli mbaxana yu rafet de du diri ay garaaw bubb de mais itam mbokk yi du yëkkati itaas ak i kat kat ak i jas neer liggéeyal Serigne Touba da ngay xool fa mag ña tegal tànk nga teg fa tànk suñ daan day dal fa mag ña tegal tànk mu teg fa si tànk mos nañ ma ne ko ah mu ne mbaa doo sémb lu tuut ma ne ko ah yow de ku la gis lu ñimee sémb lu tuut ndax moom sémb ko te itam li wax rek ab taal bi du am alal mais xiiwal lay am xiiwal lay am kër ga mu yor ma nga fa taxawal daara ñu naa ah, diituwaay mu yëkkati fa yàlla am néeg loolu nag la mag ñi daan def taxawal daara ak néegu jaamukaay yàlla di liggéey di dundal seenu yàq ci loolu la nekk moom sëñ Daam Sall xam naa dinañ leen jox ay numéro incha allah rabi wala dinañ émission bi waaye alaa kulli xaalin loolu lan amal luñ ci wax bis fa ne suba lay am incha allah rabi sëñ Mbàkke moom sëriñ Moustapha Maymuna moo koy seet ci suba ak jàmm fële ca Touba Firas li ëpp na ci nit ñi bu ñu fay ñëw ñu bari dañuy réer ndax damay faral di wax ne boo ko jaaree Mbàkke dem dama xam ne wala bala ngaa dem dina sori li ci gën daal mooy bu ñëwee ba ancien garage su Dakar clando yi nga xam ne ñoo jëm euh, euh, ndaamaatu nga dugg ci ba fi ñuy wax ñaari pënu nga wàcc ñaari pënu boo nee ana oto yi jëm Firdaws wala oto yi jëm ca kaw wala bopp tali loo ci wax dee leen clando yi ak nii nga fay cent franc dugg ci boo nee ba bopp tali boo ko woowee moom incha allah rabi naa di jox sama numéro may tam képp ku ci bëgg ñëw te xam ne mosoo faa ñëw mosoo séqati ak sëñ daam bi nga dégg bëgg séqati ak moom dina jox numéro boo xam boo ca wootee dina mën a gindi ba nga ñëw kër sëñ daam incha allah suba jàmm boo wàccee bopp tali foo woote wala nga laaj sax ña fa toog ko laaj kër sëñ daam Sall ñu daal la ko tegtal foofu ci Touba Ferros kon fu yomba xam la fu yomba xam la waaye jaar yoon woowu moo gën a gaaw boo ko jaaree Mbàkke rek da nga ñëw ba Elton fi Elton bi nekkoon fële ca euh, fi bàkk tuwaay di tourné boo fa taxawee sareet yi jëm Mbëbërin boo ca duggee day day métti dangay xool oto yi nga dugg boo duggee ci oto yi ba fa oto nga wàcc ndox wuti robinet bi nga xam ne moo den ak bitigu jaga robinet bi mooy robinet yu mag yooyu am ñeenti solom yi boo toppee raara bi ne di nga dox ba ak ci benn robinet bu am ñeenti solom boo xoolee ci robinet bi di gis benn yoon boo xam ne moo la féete sa côté ndijoor génn sump ne boo laaj ci bitigu jaga sax ñu ne boo nee boo demee ba boo ko ne kër sëñ daam sàll den la joxoon yoon ba ca jëm muy ñuy jaare ba bëri waaye yoonu ba bëri dafa day gudd ci yéen jaar asaka asaka daal ñëw ba ñaari përu dugg ci wuti oto yi ca kaw kalaandoo yaa ko taxaw cent francs ngay fay moo gën a yomb kon loolu tam na ko ñëpp bàyyi xel ndax dégg xam naa ni am nañu dégg émission bi ñoo xam ne suba ak jàmm déen ci bëgg ñoo man loolu xam naa mm. bu ko defee itam wax leen fi ñuy jaar bañ xam suñ daam sall fan la dëkk ci Touba bu ëllëgee itam bu fa bëggee ñëw wala ñu am soxla suñ ko bëgg a diis wala ñu bëgg a déggante ak moom xam sëriñ daam sall ma ngi fii loolu itam insha allahu rabbi da ciy baax xam naa def na fii numéro bi bu ko defee ñu mën koo joxe ñaari ba tigo bi ak information mm. su ko defee loolu itam dañ ci daal di baax kon mbokk yi ñuy dégg daal bis baa ngi noonu sëñ Dame Sall woo na ñëpp bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu an muhammadan rasulullah sëñ a ma ngi lay woo ca bis boobee ndax nee na mooy moom la am amul beneen bis bu ko gën a kawe ndax it dafa neex sa kilifa di la seet si yow yaa war a jog seet sa kilifa sa kilifa jóg di la seet loolu ko gën a kawe amul kon jërëjëf sëñ Dame yàlla yàlla barkeela la bu ñu xëyee deen jàng alquranu karim beneen